gars voilà voilà Mr. Sheikh, Mr. Sheikh, là depuis les États-Unis d'Amérique c'est gars voilà Monsieur Sheikh, là, là, je suis là New York Nous avons euh, quelques actions puis euh, nous euh, xaaral ñu won leen quelque dañ dem ci pays pays jaajëf sama gars bienvenue bienvenue c'est Mister Shake ah le dimanche am huitième jour sur je ne me trompe grève de la faim président Sonko président Sonko sonn na il y a des actions gis nga Gédo Demba Boy dafa mel ne am na ñu def foofu station Shell Gédo jaajëf gars yi ku dugg na nga laaj ku dugg na nga partagé Moustapha Lo jaajëf gis ngeen booy yi booy yi ñu ngi ci affaire yi ba léegi gars yi laaj leen partagé leen dugg leen laaj partagé ñu continuer waxtaan bi le combat continue voilà le combat continue gars yi Gueye Sonko il faut pas vous décourager les gars il ne faut pas vous décourager on est là on est là pour pour sortir Sonko parce que les gens, sont li jot jot li jot c'est normal parce que nous ngi bëgg nelaw ñu ngi président Sonko euh, prison sénégalais vraiment diaspora bi euh, activistes vraiment parce que man mënuma comprendre président Sonko nek kasso 7 sept jours kuma ko waxone du ko président Sonko dina 7 jours sénégalais yi nek ci ay affaire yu faire, fayda kuma ko du ko vraiment dafa jot dafa jot dal dal waa Pastef parce que waa Pastef ay ragal lañu waa Pastef ñoo war a xeex waa Pastef ñoo war a xeex jot na. dafa jot ñu libéré président Sonko billaay barke rek jot na ñun parce que waa Pastef dafa mel ne bu ñu leen toppee nga jëm Touré rek bu ñu ko toppee du ñu libéré Sonko waaw gis nga il faut que ñu commencé def critique autocritique waaw gars yi Pastef mënuñu leen wóolu parce que Pastef ils ont failli. ils ont failli le bureau politique de Pasteur, ils ont failli parce que Ça ça gagne nous pour le président Sonko il faut que nous activistes nous ñu une responsabilité qu'on organise la résistance Daniel <coughs> ngeen C'est guerre de Gaulle ba Allemagne ba Allemagne euh, euh, occuper France de Gaulle dafa dem Angleterre elle à l'étranger elle il a organisé la résistance depuis l'Angleterre kon Nous les activistes c'est nous qui devons organiser la résistance depuis fu nous libérer Sonko parce que Pastef ils sont incapables Waouh Pastef ils sont incapables nous dara tous parce que vous nous capables. Ousmane Sonko qui du barricadé pendant 55 jours Pastef vous nous capables.

ana mu sax lii dafa mel ne Kër Matar bala woon ba ñuy taal six oto loolu la may nduróo parce que dama gis oto yu bëri ñu tàkk fii comprendre nga laaj leen partagé leen laaj leen partagé leen parce que parce que xeex bi xeex bi il faut ñu yóbbu ko beneen level dinaa la woon aussi euh, Branco Branco jàpp nañ ko gars yi doon wax ne jàpp ñu ko Mollah morgan bu leen ko déglu moo Morgun <coughs> nee na moom moo wax Branco demal fii demal faa di wax nee na jàpp ñu Branco léegi di gis bokk ci image yaa ngi nii image yaa ngi nii Branco la ñu wane nii lañ ko wane mu nekk ci bato bi nii gis ngeen Branco jàpp nañ ko mi ngi gis nga tukulóor yi ak waa Mauritanie ñu ngi koy ñaawal Branco mi ngi rëbës moo laa mër wax ne grand bu jàpp ko axane ton di wax grand bu Branco kenn jàpp ko jàpp nañ ko mi ngi rëbës mais loolu yëpp dinañ leen ko woon après gis ngeen waaw ñu ngi ñuy ñaawal ah, ñu ngi ñaawal ñu ngi vraiment dañ ñoo yëpp dañ ñoo yëpp affaire u ko bandum branco ngi noonu branco ngi noonu mais gars yi tey moom dama ñëw pour wax leen ne résistance bi il faut que ñu organiser ko d'une autre façon gars yi gën leen laa gën leen partager bu soobee yàlla pros di leen ko libéré billaahi wallaahi taala bu mu leen waxee rek gëm leen ma il faut ñu ëpp waaw gis ngeen Branco moom la ñu wane nii Branco moom la wane nii waa Rosemary jàpp ko daal di ko jébbal euh, Antoine Diome Branco mi ngi rëbës Branco nee du wax soxlawul avocat Branco soxlawul avocat nee na du wax gars yi gën leen laaj gën leen partagé waaw minorité population euh, euh, kii qui n'est pas Diop lan la wax Pastef c'est un <coughs> wara jël sen responsabilité déedéet déedéet Bara Diop gis nga xex bo gis fay am général wa Pastef ils sont incapables gis nga gis nga man man man su critiquer man rek may critiquer déggu len kenn kuy critiquer wa Pastef wa Pastef ils sont trop passifs dañu bàyyi woon président Sonko à son sort dañu bàyyi président Sonko mu centraliser lépp di jël décision yépp ñu ragal ko wax deug buñ ko waree wax deug mo dal APR APR Macky Sall dafa nek di def lu ko neex kenn ñemewul wax parce que ils sont des incapables bu mu la waxé ils sont des incapables ils sont des incapables parce que yow nan ngay togué ñu euh, euh Euh, lu mu tuddati Jomaay Fay kenn waxul man maa fi man rek ngeen dégg ci activiste yi ku fi lu euh, euh, mu tuddati ku fi critiqué woon Jomaay parce que Jomaay bañ koy jàpp dafa saraxe boppam dafa saraxe boppam parce que yow waruloo toog ah guddi guddi onze heures kenn amul droit jàpp la ay avocat wër ko ah maître Tall mi woon ak yeneen personne gis ngeen booy yi fii booy bu leen wax dara booy yaa ngi nii di xeex fii jet d'eau la booy ñoo dem attaqué benn station Shell jot nañ ko taal dégg nga Brioche Dorée waaw donc gars gën laa gën leen partagé Jomaay Fay Jomaay Fay bañ koy jàpp dafa waroon xeex xeexul mu saraxe boppam waaye loo ci gis tey bopp ba léegi mu ngi ci prison te am na muy demee ñu rey ko man rek maa génn ma ne Jomaay yëfu tàppat la def parce que bañ lay jàpp da nga waroon dóor waa ji parce que waa ji amul droit mu jàpp la à 11h ci guddi amul droit da nga waroon xeex ngeen dóorante boo demee hôpital après nga ñibbi sa kër mais Pastef ay tapet ñoo fa nekk Pastef ay bukkat ñoo fa nekk Pastef ay incapable ñoo fa nekk <coughs> gars yi il faut ngeen déglu ma xaaral ma pause lii su ma ko mënee pause gars il faut ngeen déglu ma man ñëw ma fi ñëw ma fi pour yàq der mais instant yi dafa jot dafa jot dafa jot ñu libérer Pross dafa jot ñu Liberproc Sénégal dafa war a tàkk comme li ngeen di gis nii dafa war a mais c'est vrai que Pastef minorité là, mais problème bi mooy gis nga nit boo bëggee avancer da ngay def critique ak autocritique instant bi dañoo nekk ci guerre te nee naa leen activistes yi ñun activistes yi ñun ñoo mën a joxe plan de guerre boo leen gisee sama sama déguisement sax ngeen xam ne man vraiment je suis prêt dañu war a synchroniser kayis foofu Ousmane Tunkara... comment dirais-je Boy Malika ñu jël suñu responsabilité ñu joxe un plan de guerre Nous Dakar nday Macky Sall mu jóge fi nee De Gaulle ba Hitler occupé France deuxième guerre mondiale De Gaulle De Gaulle dafa dem le général De Gaulle dafa dafa daw ah mu dem Angleterre mais ba mu némé Angleterre fofu la nekkoon ci radio yeeg yoyu mu organiser résistance résistance bi buñ ko bàyyee ak Pastef Ousmane Sonko dina dee ci kaso bi jaajëf Nefer Cissé ñun ñun yaana voilà yaana maar ñoo ñëpp dañoo daw fi mu nekk ñun rek a des Macky Sall dafa xoqatal euh, activistes yi ñii mu tëj leen ñii mu exiler exiler leen fi mu nekk ni Clédor dafa waroon jël responsabilité am mais Clédor buggul jël responsabilité am dafa daw mu làqatu Clédor Sène dafa daw mu làqatu ba mu génnee benn dafa bàyyi ba ñu jàpp Ousmane Sonko

fii lañ leen waxoon ne Ousmane Sonko kenn waru ko bàyyi ñu ñu ñu encadré ko këram cinquante cinq jours man Mister Shake man rek maa fi nekkoon di wax kay foofu envoyé naa ko benn audio tegaloon naa leen ko fi keroog boo leen bëggee mën naa leen ko tegalaat mais damay perdre du temps kayis foofu ma tegal ko ojo ma ne ko kayis ni ñu xeexee du nii nañu dem ñu dindi ndey barage yi ah Macky dafa def crime de guerre dañ ko war a song ñu demande démission Macky Sall kayis dégluwu ma kenn dégluwu ma activistes ils ont failli nous ñuy xeexee di nii gars yi partagé ne damay saaga nday ñëpp la wax nga ne man nous ay ragal ay mais surtout ay incompétents ils sont incompétents Nous dañu fait rek Ousmane Sonko gis nous parti dictature baaxu parti kenn centralisé. ko Ousmane Sonko xam fa la conseil ci Khalifa Sall euh, euh, docteur Cheikh Tidiane Fall Nous ko conseil. te da xam nañ ne Macky Sall lañuy ñom El Malik. responsabilité ak Touré wax Ousmane Sonko hey bo deful lu def ñoom ba ñu ba ñu ba ñu jëlee Ousmane Sonko ñu barricade këram ñoom ñoo waroon wax Ousmane Sonko hey saay saay da ngay génn da ngay génn mais ñoom dañuy toog rek di xaar Sonko Sonko am na ñu muy waxal si suuf ah man de xaw ma c'est c'est vraiment dafa ñaaw El Malick dem ci Babacar Fall euh, nu mu tuddati euh, Faram Facce mu ne ko Ousmane Sonko lan lay def euh, pour marche pour investiture bi est-ce que di nga di di di dina ñëw wala du ñëw mu ne man xaw ma. man xaw ma xaw ma lan la Ousmane Sonko di def lan la El waxoon ne investiture bi dañ koy def euh, euh, euh, géejawaay par force loolu la waxoon El mu ne day am ñëpp ne day am mais ñu toog ba les ba ba dernier moment ñu toog ba dernier moment Ousmane Sonko génn mu ne concert de casserole yéen ngeen ñàkk fayda ñàkk fayda di bàyyi Ousmane Sonko mu nekk fii ah di def ay concert de casserole nu mu tuddati Dame Mbodj Dambo démb génn di def live amul dara lu muy wax ne fait yang fa woon nekk fi di wax ay élection Ousmane Sonko day bok élection mais Dambo ko buñu ñu yow ki ñu koy waaj a nga ñi wax ay affaire élection parce que Dambo xam na ne bu waxee xalé yi génn leen dañ koy tejj comprendre mën comprendre Dambo Sénégal la nek ñemewul wax parce que bu waxee dañ koy tejj wa Pastef ñemewuñu wax buñu ñu dañ leen di tejj gis nga Ngagne Demba Touré dafa daw laqatu comprendre nga mais man limay wax moy wa Pastef ils sont incompétents parce que El malik. warul leen nangu Ousmane Sonko di def concert de casserole euh, euh, bële passé parce que yéen xamu leen xamu leen waaw warul nangu Ousmane Sonko di def concert de casserole yéen a ko waroon forcer ngeen ko Ousmane Sonko génnal ñu xeex génnal ñu xeex mais le passé c'est le passé li may wax nii mooy li may wax nii mooy Ngagne Demba Touré li mu def baax na amul suivi amul suivi nit ki boo génnee nga dañuy libérer Ousmane Sonko le 4 vendredi Ousmane Sonko warul def une semaine ci ci kasso bi yow li nga wara def moy nga ne da jox itinéraire da nga waroon génn nga respecte nit ñi parce que li du respect li du respect parce que ñun du tok fi fii ah di wax xalé yi génn leen taal leen seen pono def leen ni ray leen ki ray leen ki yow nga jox ñu rendez-vous au dernier moment ñu gis nga dem amuñu benn explication xamuñu ndax dañ la japp ah xamuñu dara kenn duñu informer mais lii dafa ñaaw ana Cheikh Thioro à mi ngi ci clandestinité ah génn un poste lan la wax Serigne Touba ah mouride waru len est-ce que di ngeen seetaan lu parce que Serigne Touba fi 1895 le 10 le le 10 le 5 août xawma ñu ñu japp après le 10 xawma lan septembre ñu ñu juger ko ko Gabon ñun waxuñu affaire Serigne Touba fi mu nek ni li ñuy wax Ousmane Sonko joxe len stratégie ñu génne ko mais dem lakatu di génné ay post Facebook di ñu wax Serigne Touba li Serigne Touba la du lolu mooy génné xale yi xale yi xam lan lañ soxla ku leen wax point A ah ak heure heure heure sangam génné leen def leen ni def leen li vraiment vous vous vous yéen wa Pastef Pastef vous êtes des incompétents amu leen dara loo fi def ay Abass Fall di ñu génnel ay lettre Ousmane Sonko Ousmane Sonko di bind lettre di wax naan contumance duguna fi génné fi mais Ousmane Sonko wax leen ko deug wax leen ko dëgg boo leen bëggee mu génn affaire bu du tribunal du ay affaire lettre lettre Ousmane Sonko bi gis ngeen ko gis ngeen lettre Ousmane Sonko bi man nan la usman Sonko di nekkee prison Macky Sall di ko bàyyi muy génne ay lettres parce que Macky Sall loolu ko arrangé ay lettres di dem tribunal di def ay appel du loolu mooy génne Ousmane Sonko Ousmane Sonko li koy génne mooy gatsa gatsa li koy génne mooy xale yi génn ñu ñu taal nday réew mi ñu taal nday réew mi quartier yëpp yëngatoo. Nous dem pale ñu dem pale bu ñu waree dem Sébikotane nous dem ñu Ousmane Sonko loolu Ousmane Sonko... C'est nous mais nekk fii di Ousmane Sonko muy bind ay lettres ah ah di lettres di juge bi ci contumace mais nous, nous faale ay ay tribunal mais yow nañ ko génnee muy ci pas bi Pape ah, ah, lettre instant avocat yi meun nañu bind lettre yi xanaa Ousmane Sonko amul lettre amul ay avocat Ousmane Sonko amul avocat kon avocat yi xamuñu lu ñu war def Ousmane Sonko moy tok ci kasso bi di bind lettre di ko yónnee kon avocat yi ils sont incapables kon limay wax ngi nii Nefertiti Nefertiti li wax ngi nii ñu wër Ousmane Sonko ñiko wër yépp ils sont des incompétents parce que boudé Ousmane Sonko moy tok ci biir euh, prison xam amna am benn lettre bo xam ne moom moo ko bind te mu am lu mat 10 avocats

ils ne vont jamais gagner devant la barre lan ngeen di dem ci def tribunal te Ousmane Sonko bu bindoon fii ba illaa yow mi diin Pastef dañ ko tas Ousmane Sonko Macky Sall du ko bàyyi mu bokk ci élection que tasse nañ ko Biram Souley signé na léegi loo fiy nekkee di bind ay lettres nañu génne Sonko ba pare buñ ko xasee génne après nag bu ko neexee mu dem tribunal wala mu dem moo moo xam mais tant que Ousmane Sonko nous ñun suñu général bu fekkee ne dafa nekk ci kaso nan la ñuy gañee guerre bi suñu général bu nekkee ci kaso bi nan la ñuy guerre bi suñu général bu deewee ci kaso bi nan la ñuy guerre bi xale yi ñu ngi commencé tàmm Ousmane Sonko nekk prison looloo tax may gën a ah Ousmane Sonko bañ ko wëree këram cinquante cinq jours waruñu ko woon nangu waruñu ko woon nangu mais le passé c'est le passé dañ ñuy nelawal di ñu nelawal di ñu nelawal ba ñu tàmm cinquante jours Légui, li may ragal mooy ñu nelawal ñu nelawal ñu ba Ousmane Sonko defaat yenen 55 jours wala mu dé ci kasso bi Nefertiti li ma wax deug la gis nga wa Pastef ay incompétent lañu ay incompétent la amul kenn ku mën jël responsabilité bi Ngagne Touré xamna dañ ko wo ne ko bàyyi loolu parce que moy li la wax dafa bëri ay espion Ngagne Demba Touré limu bëggon def loolu moo doon moo doon yëfi li xew moy wa Pastef kenn gisu ah Ngagne Demba Touré daf ñu waxoon euh, le 4 dañuy def rassemblement dina wax itinéraire daf ñuy wax nan la ñuy def ba libérer Prodac loolu la ñu waxoon nest mais ana Ngagne Demba Touré léegi kenn du ko kenn du ko wax dëgg mais ñun ñun du ñu ay ay ay ay ay nit yoo xam ne da ngeen ñu fiy weer comme géej gi ah ñu xëy benn jour rek ñu ne Ousmane Sonko dee na wala Pape Alé Niang na wala xarim ku xàq dee na wala keneen dee na dañoo bëgg ngeen xam ne Macky Sall ñoo ko mën billaahi wallaahi taalaahi Macky Sall duñu moromam waa APR ñu ngi commencé naagu ñu ngi commencé am fit te lii boo leen ko boo leen ci jugul patriote yu bëri dinañ commencer beddeeku di dem ci makki Sall parce que sénégalais moom mel noonu sénégalais transhumé rek la xam bu ñu gisee ne ah Ousmane ko kon gagné nañ ko waa Pastef ñu ngi signé ay lettres ah waa Pastef ñu ngi leen di jàpp di tëj kenn kaasul kon ñu bëri dañuy commencé dem Macky Sall da leen di jënd comme nu mu jëndee ñoom Khalifa Sall suñu doole day wàññeeku xale yi dañuy dem ba découragé commencé nekk ci yeneen man li ma wax mooy diaspora bi ni ngeen di xeex ni ngeen bëree noonu tey buñ ko bëree woon Sénégal kon yi fi jeex dëgg la walu dëgg diaspora bi ñu ñoo war a organiser résistance ñu ñoo war a organiser résistance xam nga waaw Pape Alé Niang Pape Alé Niang bu deewul tey bu ñu sàgganee dina dee suba Birima waaw bu ñu sàgg parce que magam moo ñu wax magam moo ñu wax ne jee la dee la gën a jege ko dund magam moo ñu ko wax magam moo ñu wax ne dee la gën a euh, euh, euh, jege ko dund Brimel fi mu nekk nii lépp lu ñu mën a def tous les moyens sont bons pour libérer Sonko lépp lu ñu mën a def bu bu dee jar na ñu ne Pape Alé Niang dee na bu dee loolu mooy génne xale yi nañ ko def man li may wax mooy waa Pastef ñu ngi bëgg a trahir Ousmane Sonko Ngagne Demba Touré wul déglu kenn xam naa dañ ko dañ ko jëlee ci ci ci li mu buggoon def parce que Ngagne Demba Touré dafa ne woon le 4 la ñuy libérer Sonko mais yéen xanaa déggu leen discours bi mais Sénégal lan moo tax ngeen yàccaaral ay eh bu leen wax waxu Pape Alé loolu c'était hier mais yow yow Ngagne Demba Touré mais sénégalais lan moo tax ngeen yàccaaral lan moo tax ñemewu leen dëgg mais Ngagne Demba Touré moo fi génn mu ne xale yi dak ñëw leen dakaar am ñoo xam ne jël nañu paas ñëw dakaar waaye bañ ñëwee Dakar vendredi gisuñu dara. tay la lan tay le dimanche ana ngañ démb Touré est-ce que jàppuñu ko yeen lan mo leen woor na jàppuñu ne ngañ démb Touré mais da ngeen euh euh da ngeen yakar né buñu jappé jàppee ngañ Touré dañ ñu koy wax duñ ñu ko wax dañ ñuy bayyi rek ñuy dundé yakar dañ ñuy bayyi ñuy dundé yakar est-ce que yéen may dégg man lima ma leen di wax moy wa pasteur jël leen seen responsabilité ngeen déclenché troisième vague ñu dem libérer Sonko bu dee li may wax nii. dafa am ku nekk fii di ma saaga ci lii kooku bëggul Sonko waaw bu dee li ma wax dafa am ku nekk fii d'accord ci bëggoo Sonko man li ma wax waa Pastef c'est très clair génn leen jël leen seen responsabilité ngeen wax ñu fan la ak kañ la man loolu laa wax ah waaw mais loolu loolu loolu loolu xanaa yéen bëggu leen Sonko xale yi xale yi amuñu xel xale yi ay xale lañu xale lu mu xamul xamu ko nit ki lu mu xam xamu ko xale yi bu fekkee ne dañ leen di gëmloo ni Ousmane Sonko mi ngi ci jàmm mi ngi bind lettre ah kon dañ naan mi ngi ci jàmm ku nekk prison kay ñu naan la yaa ngi ci grève de la faim ñu jékki-jékki gis la nga génne benn lettre dañ naan kon kii nekkul ci diggante dund ak dee Macky Sall dafa muus moo tax muy bàyyi lettre yeeg yooyu yooyu yëpp di génn man li may wax c'est clair gars li may wax c'est clair ana Ngagne Demba ture ana Ngagne Demba Touré bu fekkee ne Ngagne Demba Touré dañ ko jàpp.

di ñu jàppale ci xeex bi tey ñu jàpp ko kenn génnul kenn jéemul jëm jéem a génne Juan Branco xool leen waa Fuuta a ah, ak waa Mauritanie ak pulaar yi nekk ni ñuy ñaawalee Juan Branco xool leen leen xal pulaar yi ni ñuy ñaawalee dégg nga Juan Branco moo nekk nii xool leen lii lii dafa ñaaw lan moo tax Sénégal ngeen yàccaara xool leen lii est-ce que lii c'est normal tubaab boo xam ne yoonam nekku ci mbiram mbir mi ah tubaab boo xam ne yoonam nekkul ci mu jigee ba France ñu koy wër senegal mu ñëw mu ñëw tukulóor yaa ngi nii di ko di ko sabata parce que affaire u Haalpulaar la ñu bëgg affaire u net dokomandom la ñu bëgg dañoo bëgg ah ah Pape Alé Niang dañu jàpp ne deewul bu deewoon dinañ ñu ko wax mais démba ñun nee naa leen

Bakary defe naa yow war nga xam loolu Macky Sall dëmm la jaam la Branco nee na dañ ko taxañ taxañee gaañ nañ ko ci loxo Branco mi ngi rëbës rëbës kuñ fa yóbbu dañ lay humilier xam nga dugal la ci chambre boo xam ne ay dix personnes vingt personnes ñoo fa nekk Branco Branco da nga yaakaar ne rëbës am na chambre par chambre boo xam ne yow rek yaa fay nekk ah lu tax la moo tax yóbbu ñu ko euh, euh, euh, fële nu mu tuddati nga sëbbi xotaan parce que Macky Sall dafa bëgg toroxal

wax a joxe stratégie pour ñu génne Ousmane Sonko damaa gis ne ah ah médecin yi war nañ mën a joxe stratégie pour ñu génne Sonko fi mu nekk xam la moo gën a jam dàmbooj bu leen ma wax wax dàmbooj yéen xale Sénégal billaahi wallaahi taalaahi di ngeen torox yéen ñëpp parce que ñun ñii nga xam ne ñoo leen mag fuuf dàmbooj sax maa ko mag man cinquante cinq ans la am waaw damaa jàng damaa am sama maîtrise en anglais man premier rek laa daan jël Mamour Diallo mii tey nga xam ne moo taal Sénégal ñoo bokkoon classe te maa ko daan raw Mamour Diallo ñoo bokkoon classe yàlla dafa maa boole ci mbir mi. bàyyi leen Mister Shake bu ma bu may ñëwee di leen di leen wax ngeen topp di déglu dof yu mel ni ay dàmbooj dàmbooj fu ñu toll buy def live 6000 personnes di ko seetaan dafa war a jël courage am mu ne xale yi Ousmane Sonko dem leen ngeen génne ko boo ko génnewul dina dee ci kaso gi te bu bu deewee man mii man mii tey dinañ ma jàpp dinañ ma rey dàmbooj yàgg yàgg Macky Sall da koy jàpp. bu leen fàtte ne dambu dañ kaa fëgg juróom-ñaari bal dañ kaa bëggoon a rey kon jàpp mooy lu gën a tuuti billaahi wallaahi taalaahi Macky la ndànk-ndànk lay def mais gis nga boo leen xeexul ñoom Dambou ñii ñoom euh, euh, Guy Marius Sagna Abass Fall waa Pastef yéen ñëpp Cheikh coro ñu ngi koy ñu ngi koy wër yéen ñëpp ci kaso bi ngeen ngeen di ngeen di ngeen di mujj Dambou bu bu defee live nañu wax nan lañu ñu war a def ba génne Ousmane Sonko ci kaso bi. mais nek fa di wax né Ousmane Sonko day bok ci élection mais ñun dañu tal ay élection mais Ousmane Sonko mi ngi ci prison bi pendant 7 jours 8 jours lekul wax waxal wax ñun Damboj démb fofu la nekk di wax neferti di ci mbop mi ngi nan ma Mr Cheikh Damboj patriote la xawma li lii dugg fi fii fi ah man waxuma né Damboj il n'est pas patriote ñëpp xam nañ ne il est patriote mais instant bi bu leen ñu wax waxu élection ndax parti bo xam ne dañ ka tass dem dem di nangu sen xaalis di leen tëj maire sax ñu ngi leen di tëj kooku war nga yaakaar ay élection ah waxal xale yi nu ñuy def ba ñu génnee Ousmane Sonko bu dee nag da ragal ne boo waxee dañ lay jàpp bu la neexee nga nga noppi mais boo génnee di def live dàmbooj ñu fi nekk di ñu wax ay waxu Niger ah CEDEAO mi ngi Niger dafa am lu jàmp Ali Kalaj gi mooy Ousmane Sonko mi ngi ci prison bi mais kañ ngeen di yeewu Sénégal kañ ngeen di yeewu kañ ngeen di yeewu kañ ngeen di yeewu j'en kañ ngeen di yeewu parce que ñun di ñu toog Marème fay Sall di ñu jiite Mansour fay di ñu jiite ba illaa yow mi gis ngeen Mansour Faye tey léegi dañoo fuy dem na ànd ak dakaar Buzz xaaral ma war leen ko léegi léegi léegi seen xel dafa dal nekk nii waa APR seen xel dafa dal yaakaar nañ ne gagné nañu combat bi xaaral ma dem Dakar Buzz léegi ma la Fadel doomu xaram bi ah ay Fadel ay Diallo Seneweb ñooñu ñëpp la ñu jënd ah léegi lu ñu bëgg communiquer dakaar Buzz la ñuy dem. Ah, dem na dañuy dañuy euh, euh, euh, Mansour Faye nee na day jaale mais Mansour Faye instant bi waruloon génn Ousmane Sonko nan lay nekkee ci prison bi Mansour Faye mi ngi nii. xool leen Fadel doomu xaram bi mi ngi nii kii mooy Fadel boo leen xamul kii mooy jaam bu mag bi. dégg nga euh, ñaari xale yi nga xam ne ñoom ñoo leen rey kii mooy Fadel boo leen xamul Fadel euh, kii mooy Fadel kii mooy doomeram bi dégg nga dégg nga bakkan dara ko mënu ko remplacer xaaral ma wan leen Mansour Faye déglu ko déglu Mansour Faye euh, kii war na tax génn ci mbedd bi instant yi lan moo tax ma Marème Faye di yàq ko ko léegi ñuy jiiñ ñun ñoo rey yi. des personnes et des biens. dégg pour que pareille situation. dégg nga ne puisse. mi ngi ñuy je pense que le message est très fort. dégg message compris non seulement par les populations. mais aussi par l'ensemble des acteurs dont les acteurs. est-ce que c'est normal est-ce que c'est normal Mansour Fay, Warna naa génn di wax kii bu génnee ci mbedd bi instant yi dañ ko waroon dañu waroon téegal ndeyam. ñoom ñëpp dañuy waroon fu ñu leen gis ci mbedd bi dañu war a téggal ndem mais fi mu nekk nii ñu ngi ñuy préparé parce que ma Marème fay ña mooy génn mais dañoo muus waa APR dañoo muus dañoo xam nu ñuy déroulé waa APR dañoo xam nu ñuy déroulé dañoo yor benn machine boo xam ne boo dof dofloo dañ leen di nelawal ba toog fa ba ilaa yow mu diin man de billaahi wallaahi taalaahi du ma mës a nangu Marème Faye Sall di ma jiitawaat billaahi wallaahi taalaahi du ma mës a nangu Macky Sall du fi toog <coughs> dinañu xeex ak ñoom on va organiser la résistance à partir d'ici Nous fexe ba kay sof Malika ak ak Ousmane Tunkara ñu coordonné suñu action loolu bu mu dégg na boy Malika du ko wax suñu coordonné suñu action ñu wax jour telle heure kat len lepp bu def parce que Pastef lañ doon mais wa Pastef dañoo daw sen responsabilité bu leen instant yi bu len deglu Ousmane Sonko bu len deglu Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko ci kasso bi la nek ah xamulen leen nan ñoo koy manipuler mënu len ko gis mënu len wax ak moom téléphone bàyyiwuñu len visite kon buñ ñu né Ousmane Sonko mo né li bu len ko gëm man dama gëm ne xeyna na wo woo Ngagne Demba Touré né ko Ousmane Sonko néna tégal lepp ci souf parce que Ngagne Demba Touré nan la ñuy waxee le 4 ñëpp dañuy génn le kat ñëw ngañ Demba Touré waaf ken gisuko duma ne sax dafa waaf mais ken xamul fu mu ne kenn xamul ndax dañ ka japp ken xamul ndax dañ ka man lima gëna gëm sax japp ñuko parce que buñ ko japp dañ ko wax xam nga la la gëna gëm dañ ka wo ci suuf ne ko bàyyil mu sedd ñu ngi dialogue bàyyi len dialogue El Malik bàyyi len dialogue ah Abass Fall bàyyi len dialogue Guy Marius Sagna len dialogue makissala Sall da di nelawal da di nelawal ba ray Sonko ça yoo leen que dañuy génn taal réew mi rek sëriñ nous tiit sëriñ yi ñooy Nous yi jaar ci Cheikh négocier parce que avons ngeen El Malick keroog ba mu demee ci nous Diop négocier ak ak ak euh, euh, mais nous avons kon négocier ak Ousmane Sonko prison il faut que nous génn nous libérer Branco il faut que nous génn nous libérer nous libérer. Euh, nu mu tëddati euh, euh, pros il faut ñu génn ñu libéré Cheikh Bara Ndiaye ana Cheikh Bara Ndiaye fàtte nañ ko ah Cheikh baara njaay nan lañ koy jàppee ñu fàtte ko buñ ne Pape Alé Niang dee na nit ñi commencé du ñu attaqué mais ñun dañoo jaaxle xamatuñu lu ñu war a def moo tax buñ ñu waxee Pape Alé Niang dee na duñ fi sax nekk du jéem a vérifier ndax dëgg la dëgg man ku ma xam-xam ne du ma def fausse information man du ma joxe fausse information mais damaa jaaxle xamatuma lu ma war a def moo tax démb ba may defee live ba ma defee live ma jékki-jékki ñu ne ma Pape Alé dee na jéem ma fa nekk di vérifier vérifier parce que dama ne lii xewal la xaaral ma teg ko xanaa nag léegi léegi bu ñu waxee Pape Alé Niang xanaa nag xale yi dinañu génn mais booy Sénégal yi taluñu dara lu dul TikTok ñu dara parce que TikTok bi dañ ko dañ ko dañ ko arrêté woon taluñu dara lu dul TikTok bi ñëwaat na ñu nekk fa di seetaan ay challenge sous wala di seetaan ay Ouzin booy amu amuñu benn conscience mais du ma leen xas parce que man tamit ba ma amee vingt cinq ans xaw ma gat ba ma amee euh, trente ans xaw ma woon gat balaa ngay xam il faut nga am quarante ans lu ñuy wax la crise de la quarantaine il faut mu dal la il faut que nga li américain di wax mid term life crisis xale yi Sénégal man condamné moo leen billahi condamné moo ma leen xamu leen nit ki lu mu xamul xamu ko il faut que ñu teg leen ci yoon yéen ay guerrier ngeen bëgg ngeen Sonko yéen a ngi tey billaahi wallaahi taalaahi dama tiit ci ay nelaw tey suba barki rasuulillaahi damaa yow sama xel rek man sama xel ni jëpp ne Ousmane Sonko mi ngi ci prison sama fit ne tëf billaahi penku laa jubla billaahi wallaahi taalaahi damaa yow rek sama xel ne xam nga des fois da ngay nelaw yaakaar ne lépp normal mais damaa yow sama xel ne ni jët ne Ousmane Sonko mi ngi ci kaso bi mais quelle humiliation mais quelle humiliation Regarde Macky Sall nous est-ce que vous.. est-ce que vous di un toog est-ce que di un Macky Sall instant Macky Sall ma qui la gis nga Branco gis nga Branco nu ko Je vais vous ko après son bi

de comme man ni ma yeewoo tiit ne usman sonkoo mi ngi ci kaso bi Macky Sall ba léegi gëmul ne Ousmane Sonko mi ngi ci kaso bi parce que lii ku la ko waxoon da nga naan ko da ngay dul Ousmane Sonko nan lay nekkee ci kaso Sénégal président Sénégal nan lay nekkee ci kaso ñu koy waaj a xale yi kenn génnul man loolu mënu ko comprendre parce que waa Pastef ñoom ñoom seen poste la ñuy xool seen salaire la ñuy xool ak ragala dem kaso mais El Malick tey. warul woon des ci mbedd mi mi ngi dafa waroon dem kaso dafa waroon wax loo xam ne dañ koy yóbbu kaso gis nga Dame Mbodj bu dee patriote la dafa waroon wax loo xam ne dañ koy yóbbu kaso gis nga Abass Fall xaw ma député nga xaw ma doon député Ousmane Sonko bis bi ñu ko jàppee da nga waroon wax loo xam ne da lay yóbbu gis nga Mahecor Diouf ah dégg naa sax moom nekk fi mu ngi Canada xaw ma comme li ñu jàppee ñoom Maimouna Dièye jàppee ko Pape Lo Pape Pape Pape Sow jàppee ko neneen ñi nga waroon wax lo xam dañ la japp wala bok buñ la jappul nga def ni Cheikh Thioro Mbacké nga daw dugg dans la clandestinité clandestinité di def ay tweet di khas Macky Sall waaye ngeen tok melne lepp normal na di dem ci Moustapha Diop euh numu tëddati El Malik baxna na de nga dem ci Moustapha Diop baxna mais El Malik luñu ñu soxla ci yow moy nga wax ne lëf la situation est grave c'est pas normal le président de la république ñu koy lool loolu kenn mësu gis ci deuk président de la république ñu jàpp ko tëj ko di ko toroxal mel ne du dara man damaa rus billahi wallahi taala damaa rus Macky Sall nga xam ne ko rek la ragal ñaari at ñemewu ko laal ñaari at ñemewu ko laal mais mu nelawal ñu di ñu nelawal gis nga ci wax na ñëpp wax nañ leen ko gis nga Ousmane Sonko ñeme ñooñu rek jàpp ko dañ koy jàpp yóbbu ko këram toj vitram di ko sotti ndox ndànka ndànk ndànka di ñu nelawal di ñu nelaw tëj

Ousmane Sonko moo jébbal boppam billaahi wallaahi taalaahi moo jébbal boppam moom moo jël téléphone bi euh, garde du corps am gars laa gën leen waaw tey live bi du yomb gën leen laa gën leen partagé Ousmane Sonko garde du moo jël téléphone bi mais moom comme dafa dem ba maar ci liñ ko tëj cinquante cinq jours mu jugee jumaa ñu ñu ñu ñu ñu koy filmer mu dem ba maar mu ne xaaral ma déclenché troisième vague on va en finir avec Macky Sall man de buñ ma jàppee contumace bi dina deñ buñ ma jappé buñ ma téyé xalé yi dinañu tal nday réew mi comme balé passé ñu génné ko loolu Ousmane Sonko yaakar wayé Ousmane Sonko dem bané ah yeen wa Sénégal poste bi gis ngeen limu bind japp nañ ma de budé nak da ngeen nangu da ngeen abdiqué manam budé da ngeen nangu ah man man jël lepp man jëbbal ko yalla mais ñun war nañu rus war nañu rus parce que Macky Sall Ousmane Sonko du moromam billahi wallahi ta'ala serigne Ousmane Sonko du sen morom mo leen ëpp mbolo mo leen dàq jang alcorane nous togué euh, le président de la république le président Sonko nous avons nous ñu nous ko di nous responsabilité de njëkk Pastef parce que Pastef il a numéro 2 waaye un numéro 2 biram Soleil. ah yambar yambar yambar yambar xamul nit la xamul dof la fii la saaga Birame Souleye saaga yu métti ma ne ko Boy Malika bul saaga biram Souleye mais nag Boy Malika booy xool wax na dëgg parce que Birame Souleye yambar nga vrai yambar nga lan ngay ragal ci kaso doo génn nga nga nga libéré Sonko yéen yéen doo leen ay gor doo leen ay gor Ousmane Sonko yonent la dafa mel ne Jésus Christ Ousmane Sonko dafa mel ne Jésus Christ te tabaski bi wax na leen Jésus Christ ni ni ko gars yi def ni ko Juda def ni ko Pierre def yéen ay Pierre ngeen ay ay Juda ngeen. yow yow Birame Souleye yow yaay numéro 2 tey Ousmane Sonko bu nekkoon président yow yaay nekk premier ministre ah ñu jàpp Ousmane Sonko tas Pastef indi la kayit amuloo dara looy def ngay signé kayit bi yow yow yow yaa ñàkk jom Birame Birame Souleye yaa ñàkk jom këyit boobu waroo ko woon signé waroo ko woon signé boo ko signé wu lañ la lay def jàpp mais nañ la jàpp yéen xanaa xamoon leen ne bu ñu leen jàppandoo yéen ñëpp loolu moo gën bu ñu leen jàppandoo say moo gën. mais mag ngeen di toog Macky Sall di leen nax di jàpp par benn benn par benn benn xale yi duñ sax rendre compte mais boo leen boo xeexandoo yéen ñëpp dix personnes yi des parce que léegi ngeen jeex ah. léegi ngeen jeex mais dix personnes yi des amul député laa fàtte leen assemblée nationale yéen assemblée da ngeen ko war a boycotté nan la ñuy jàppee Ousmane Sonko mu mu nekk juróom-ñetti fan lekkul yéen ngeen dem assemblée loo leen fay def assemblée boo xam ne Khalifa Sall jaam bi jaam bi jaay na ko ah PDS jaam yi jaay nañu assemblée nga gis euh, euh, euh, taxawu Sénégal jaay nañu Sénégal ak waa PDS gis nga Mame jaara Fam li mu wax ci Sonko Sonko xale la na xaar ah état kenn mënul xeex ak moom ah état dafa am doole Mame jaara Fam di wax ah Sonko de li ñuy wax ne terroriste la man wóoruma ndax dëgg la wala dëgg lan ngeen di def ci assemblée boobu yow yow Abass yaa ñàkk yaa ñàkk jom yaa ñàkk jom yow yow Macky Sall mi ngi nii comploté Barthélemy Dias comploté le 9 dañ lay dàq mairie yow yaay premier adjoint mais dañ lay dàq ñi gars yi ñi ngi seen kaw tôt ou dañ leen di jàpp xaw ma 3 mois lay doon xaw ma 5 mois Guy Marius Sagna génn leen yéen ñëpp ngeen def benn say ngeen sacrifié wu ñu jàpp boo leen bëggee dund génn leen ngeen def benn say Macky Sall jàpp leen moo gën ngeen di toog mu leen di jàpp benn par benn. parce que bu boobaa sëgam Cheikh Bara Ndiaye leen jàpp kenn yëngatu bu boobaa xale yi duñu yëngatu mais boo leen génnee yéen ñëpp ngeen def benn say ah wala ngeen dem làqatuju comme comme kom comme euh, Ngagne Demba wala Cheikh Thioro ngeen nekk dans la clandestinité wala comme Ousmane Diagne bu boobaa sax moo gën mais génn leen ngeen def benn say dàmbooj activistes yi yéen ñëpp ngeen waxandoo ñu xool Macky Sall jàpp leen ngeen xool ba mais li ngeen di wax c'est clair il faut que ñu dem génn Sonko bu yóbboo ñu ne leen da ngeen def appel à l' instruction Ousmane Sonko jaru ko Ousmane Sonko jarul Dame ñu jàpp la ndax yow boo siwee Ousmane Sonko moo tax yow Birame Souleye usman sonkoo ne xale yi génn leen ñu dem jëli génn ji Ousmane sonkoo ñu jàpp la Birame Souleye loolu Ousmane Sonko jaru ko jiwu ko ah yow Abbas Fall boo nekkee député tey kan moo tax nga nekk député Ousmane Sonko tey nga génn nga ne xale yi génn leen ñu dem génn ji Ousmane Sonko ak 700 prisonniers yi. ñu jàpp la Abass loolu jaru ko Guy Marius Sagna boo nekkee député Ousmane Sonko moo tax bul déglu ñi lay jay di wax yow yaay nekk cinquième président ab Ibrahima Sall dof boobu. dof boobu di wax yow ak gàccee faal yéen ay nekk cinquième président bul gëm loolu waa yow askan bi ay traître lañ xam nga man tudduma man fi mu nekk xeex bi Pastef laa ci tudd ak Guy Marius Sagna yow askan bi bëgguma ñu dugal ci seen loxo parce que ay jaam lañu gis nga député Khalifa Sall bi li mu def démb. ah ngeen xaar ba ñu jàpp Ousmane Sonko doomu xaraam yi ngeen doon ngeen dem assemblée du xulóog waa benn bokk yaakaar nan Ousmane Sonko day bokk Ousmane sonkoo day bokk benn député Khalifa Sall waa jigéenu benn bokk yaakaar daal di gedd daal di génn dañu bëgg nax baara baara xaw ma nu mu tudd PDS moom tamit génn di wax Sonko lii Sonko laa duul duul duul duul tey laa dugg léegi ci situ situ Ahmed Aïdara mu nekk fa waaye Ousmane Sonko lii mag Sall ma ne ko Ahmed duul man xam naa dinañ ma bloqué Ahmed Aïdara bu yóbboo nga bloqué ma xaw ma 2A TV nga am xaw ma loo am bu yóbboo nga bloqué ma chaque jour dinaa dugg sa sa site dinaa saaga sa ndey jaam bu bon bi nga bàyyi ba ñu ba ñu ba ñu tëj Ousmane Sonko léegi chaque suba nga génn nekk sa site naan usman Sonko lii Ousmane Sonko la mais defal dara nga génne Ousmane Sonko Ahmed Aïdara yow maire Guédiawaye mën nga génn sans boy mën nga génne sans nga def marche. ñu jàpp la mais bëgguloo ko def te yow nee nga ne Ousmane Sonko moo tax nga nekk député ay jaam ngeen ay jaam yu bon ngeen billahi wallahi taalaahi mais Ahmed Aïdara sax man faalewu ma ko bëggatuma man waa yeewu askan bëggatuma ñu dugal seen loxo ci dara Aïda Mbodj ñoom ñëpp ay jaam lañu yow non seulement non seulement jàppale woo Ousmane Sonko fii nga dem si CICES nga def nga del trente millions cinquante millions nga ne da ngay nekk candidat nga def sa sa sa sa investiture mais Ousmane Sonko ba muy def investir am est-ce que génn nga ne nga jàppale ko déedéet ah nga bàyyi ba ñu jàpp Ousmane Sonko Ousmane Sonko di def grève de la faim yow ay Aïda Mbodj seytaane nga ne Ousmane Sonko na bàyyi grève de la faim lu tax parce que xam naa Cheikh Bass moo la activé parce que élément Cheikh Bass nga yow élément Cheikh Bass nga yow ak Gathie Fall vous êtes des éléments de Cheikh Bass Abdou Khadre te fu mu nekk ñoom ñu Ousmane Sonko def grève de la faim parce que xale yi xam nañu bu fi Sonko deewee billahi barki rasulullaay yéen ñëpp la ñuy rey barki rasulullaay Mansour Faye yaa ngi génn di doxantu Fadel Dakar Buzz yaa ngi gën di ay bakken lii ak lii ah, bakken moom ah, joxe nañ fi 4 million waaye bakken kan moo moo rey kan moo rey xale yi Antoine doom xaram bi moo leen rey Fadel ba Fadel euh, Dakar Buzz Diallo Seneweb Thierno Thierno waa ji nu mu tudd Thierno Diop xaw doomu xaraam yi TFM rusoon naa Bouba Bouba Ndour mais Bouba Ndour kenn du la rey waaye TFM TFM dañuy taal ndayam parce que yow yaa génn jàkkaarloo nga ne euh, Sonko Pastef ils sont conjugués au passé Bouba Ndour li nga wax yëpp yëpp yëpp di défendre Sonko diko défendre diko défendre Pa Moustapha Diakhaté tok doomu xaramu franc-maçon bu deug ndeyam bobu. kooku li ñu war a njëkk a rey ah nekk fa diree Daño kontaan fi mu nek they giggling they they so happy right now they think they think that's it pour ñom jeex combat bi jeex na mu génn euh, jàkkaarloo pa bobu. doomu xaram boobu haha di ree Bouba Ndour wax ko li mu koy wax ba pare waaye Bouba Ndour la la jeexale ah Sonko euh, Pastef ils sont conjugués au passé conjugués au passé Bouba rus naa la keroog ma dara mais damaa gis naa solution ci diggante bi dama ne woon Bouba Ndour bu leen ko wax dara TFM bu leen ko def dara rus nañ ci Bouba Ndour mais Bouba dama laa rus moo tax ma ne kenn du la rey kenn du rey Youssou Ndour mais TFM TFM dañuy taal ndayam gis nga TFM dañ koy taal RFM dañ koy taal observateur dañ koy taal gis nga Seneweb dañuy Dakar ndeyam parce que Boy Diallo Seneweb moom dañ koy rey moom doomu xaram yi man na ngeen yaakaar ne rek maa ko wax dem leen site yëpp foo leen dem foo leen dem moo laa moo gërëm mi ngi koy wax xalaat TV mi ngi koy wax ñëpp a ngi koy wax site en ligne yi Macky Sall da leen jënd ñoom ñëpp Seneweb moo ci raw ak Sénégal doomu xaram yi du ñu wane dara dara dara dara lu ñu arrangé dëkk bu buy tàkk duñ ko wane du ñu wane dara waaye bu Macky Sall wala Antoine Diop ne lii terroriste la ñu bëgg ñu rey Fadel doomu xaram boobu Fadel yow yaay jaam jànguloo jonguloo nga dem jaay sa ngor ñuy rey sénégalais ngeen nekk fii di yaakaar ne mën ngeen manipuler nit ñi ñoom Balla Gaye ñoom Modou doomu xaram yi dinañu téegal seen ndey yéen ñëpp mais balaa may wax ci loolu naa ñëw ci Pastef ba pare parce que wax ji mooy wax ji wax ji Pastef ñoom ñooy traître yi njëkk yi waaw vous les cadres du Pastef xamu leen gat gat gat gat ba gat booloo jeex vous êtes des incompétents qui parce que vous da un ragal Sonko wala da Sonko mais vous avez responsabilité vous avez une responsabilité Vous avez fi responsabilité. vous avez vous avez jours Vous avez une responsabilité. Vous avez il faut le libérer Sonko vous avez une responsabilité. vous avez lettres Vous tribunal jël leen seen responsabilité affaire bi guerre la gis ngeen tey waaw xool leen sama accoutrement guerre la gis nga billahi wallahi taalaahi waa APR ñu ngi ñuy ñaawal ah di ñu te doomu xaram yi maa ngi doon seetaan Thierno Diop ak Aïssatou Diop Fall parce que man damay dem seen site di leen seetaan ñu xaar ba léegi commencé wax lu baax ci Sonko mën na leen c'est trop tard ngeen bàyyi ba ñu jàpp Ousmane Sonko ngeen doog a wax wéy wéy ñëpp a war ñëpp a war a bokk

tey damaa yeewu man damay saa yu ma yeewoo damay yeewoo ak inspiration inspiration bi ma yeewoo mooy billahi wallahi taalaahi Macky Sall duñu la bàyyi ak Sénégal Marème Faye Sall duñu leen boo leen yaakaaree jàpp ngeen Ousmane Sonko Mamour Diallo maa ngi ko gis muy muy inauguré ay ay affaire xaar leen sama sama sama sama Facebook yàlla na yàlla naa ko gis sànq dama taal sama Facebook ma gis Mamour jàlloo là mu nekk fa di inauguré lu mu waroon mais avant ça gis ngeen boy ñu ci terrain bi li jedo la waaw li station Shell jedo boy dañ ko taal xawma tax demb la wala barki demb mais boy ñu ci terrain bi mais man ma sétane sank ah dama ni ni rek gis gis gis gis euh, euh, euh, Mamour Diallo mu mu am mu am li rek lañ fi nekké prosa bu yàggee lii rek la ñuy def dañuy toog rek di gis ay photo Ousmane Sonko mais jëmm Ousmane Sonko dootuñu ko gis ana Mamour Diallo moko ko gisatuma ko mais gis n'ako sank mu mu Louga di inaugurer ay affaire ñom fi mu nek sen xel dafa dala dala dala dala dala dal mais c'est c'est pas important c'est pas important na ñëwaat na ñëwaat ci limay wax gisuma ko gisuma ko lu rek ngeen dommage dommage mais man limay wax limay wax gars limay wax moy message bi waruñu tok ba Ousmane Sonko def cinquante cinq jours ci kasso bi ku d'accordul ku d'accord ci lolu ku d'accord ci loolu même ay kër waruñu tok semaine bi di ñew Ousmane Sonko warul tok semaine bi di ñew warul tok warul a à à Franco, Branco warul tok Sébikotane Pape pap Niang war genn kan mo d'accord ci lolu man sax waxuma ñooñu man Sonko moo tax ma gën a wax parce que gëm naa ne bu Sonko génnee da di génne yéen war ngeen comprendre benn affaire Sonko bu xasee génn man sama sama sama liggéey bu ma neexee sax merci Birumel Sonko bu génnee man Birumel bu boobaa sax su ma neexee ma bàyyi laay parce que léegi Sonko comprendre heureusement que màggal bi du léegi màggal bi octobre la màggal bi octobre la kon fii ba màggal parce que Sénégal làppato la bu doon màggal bi septembre la. kon suñu kon dee nañu bu ñu sàgganee ba Ousmane Sonko toog fi ba ba màggal may leen na ay kër ku d'accord ne Ousmane Sonko warul toog prison semaine bii ñu ñëw ku d'accord may ma ay kër il faut qu'on libère Pros Pros dinañ ko libérer dinañ ko libérer il faut que ñuy yëngal semaine bii di ñëw dañuy yëngal dañuy yëngal dañuy yëngal te dinaa leen wax nu ñuy yëngalee waaw dinaa leen wax nu ñuy yëngalee gars yi gën leen laaj gën leen partager gën leen laaj gën leen gis nga gis nga wax dafa jeex il faut qu'on fasse une évaluation man ce ma je wax c'est que may dégg vos responsabilités. responsabilité El Malick boo vous xam nga gars xam nga lan problème def ni comme ça son bi gëna a baax xam nga lan moy problème Ñom ne Macky Sall da di ray ñom ñep billahi wallahi taala. Fi 2000 bala 2024 di jeex Bala 2024 di ba maki tëj Sonko ba ray ko ken waxul wala mu tëj ko fi ba décembre 2024 élection amul dara amul Niger tàkk parce que Niger mun na parce que Niger tey lañ ko wara a attaqué lañu wara attaquer Niger buñu ça sàgganee Macky Sall dina len japp ñom ñep déjà député yi dañuy tas assemblée nationale à partir de 2024 à partir de 2024 Macky day tas assemblée girim gi mari di nga ñak sa immunité Abass Fall la xaw ma di nga ñàkk si immunité ak député yeneen yeneen vingt quatre député euh, euh, moo leen moo moo xanjaam Macky Sall vingt quatre député euh, kii Pastef da ngeen di ñàkk seen ñoom Ismaël ak yooyu dangeen di ñàkk seen immunité léegi nag mu topp leen ci terrorisme mais yéen loolu war ngeen ko xam Macky Sall dafa ne ay terroriste ngeen mu génne décret mu tas Pastef ba pare ci biir décret bi dafa ne dinañ leen topp dinañ nangu seen xaalis non seulement dañ di jàpp mais dañuy nangu seen xaalis kon yéen boo leen muusoon te Macky bu leen jàppee da ngeen yaakaar da leen di yóbbu séddu xotaan ngeen nekk fa hôtel 5 étoiles bañ nañ leen bañ boo xam ne dafa leen di rey Macky Sall bëggatul luy lu lu lu lu commencé paix Pastef paix paix ko gis nga assemblée keroog waa ji dafa ne Ousmane sonkoo rek rek ñoom ñëpp ñu génn dañ koo baña baña baña baña baña dañu bëgg dañu bëgg éliminer Pastef xool leen lii xool leen lii loolu sax ci Aïssa Diop Fall laa ko déggee parce que parce que te booy sot li mu wax dëgg la dañoo tëj Ousmane Sonko dañ ko tëj même pas deux heures de temps ñu tas Pastef est loolu xam nga la ñuy signifier dañoo tëj Sonko Sonko le temps ñu koy yóbbu Sébi Xotaan eggagul sax Sébi Xotaan Antoine Diome daal di tamponné parce que décret bi génnoogul woon. ne Pastef dañ koy tas ñoom dañoo bañ Pastef te xoolal ci saa si la ñu bëggoon nangu maire yi nangu député ci saa si la ko bëggoon def mais dañu xam ne loolu bu ñu ko defee ñoom Abass Fall nag dañuy dañuy jëngu nag Guy Marius Sagna boo nara nangu 3 millions boo naroon nangu 3 millions ah danaan nag ah xaaral mais ñu xam ne ñoom gii dañuy bañ moo tax ñu mën a ñu ne garaawul nañ leen bàyyi benn yax foofu ngeen ñàkkee fayda Macky Sall da leen di bàyyi benn yax ngeen di ko seeñu mais gis nga boo leen génnul dàmbooj billaahi wallaahi taalaahi dootoo rëcc Macky dóor na juróom-ñaari bal nga rëcc dàmbooj da nga yaakaar ne Macky dalaa fàtte liñ ko tuddee soxna Bator ah yéen ñi fi nekkoon ci plateau yëpp di xas makki Sall bu Sonko daanoo yéen ñëpp vous êtes mort soit dina leen rey ci kaso bi wala mu tëj leen vingt ans kon libérer Prost mooy seen chance ndax Prost bu génnee man mën naa bàyyi live parce que Ousmane Sonko léegi comprendre na ne affaire bi du ko comprendre ne Macky Sall dama ba koy rey wala mu rey ma loolu laa waxoon ci kay soof ma ne Sonko na génn xeex parce que Macky da koy rey wala mu rey Macky moo tax Macky du mës a bàyyi Sonko billaahi wallaahi taalaahi Macky du mës a bàyyi Sonko ñun ñoo mën a libérer Sonko Macky xam na ne bu bàyyi Sonko Sonko tégal ndem bu doon yéen di ngeen bàyyi Sonko Macky xam na ne yow mu tas Pastef dugg këram ci absence am jaxase kër gi ana jamanka di yuuxu mu ne day seet branco dem ci kër ga jaxase ko ah gis nga Macky bu génne dëggal kii di ma wax ba bàyyil waa Pastef Tidjane Dieng loolu moo ñu tardeel yow day doo Pastef yow Pastef dañ leen bàyyi ci li leen neex cinquante cinq jours cinquante cinq jours ñu tëj Sonko ñun ñu bàyyi rek ne ah xëy na xam na lu ñuy def yéen a fàtte ba may wax loolu ah peut-être que président Sonko dafa dafa xam lu ñu xamul ah man te jàqal na ma Brimel ñaatoon laa ko wax Sonko dafa war a xeex waa Pastef dañu war a xeex nañu dindi barrières xale yi ndigal la ñuy xaar ah mais mën na am dafa am lu mu xamul gars yi naan ñu ngi dialogué fu Malade nee na non non lii mise en scène la dañ ñoo nelawal nelaw léegi nag yaa ngi may wax encore naa bàyyi Pastef xanaa man damaa dof bàyyi naa Pastef si seen xel pendant cinquante cinq jours ñu tëj Sonko euh, suñu investiture ñu waroon ko def Ousmane Sonko ne ñu def leen conseil de casserole ñu ñu jàppale ko ci concert casserole bi ah léegi ba ñu dindee barrage bi ñu ñëpp naan jàmm la jàmm la Maroc dugg na fii génn fii ñu toog di xaar waaye léegi ñu jàpp Sonko ñu bàyyi waa Pastef une semaine une semaine seetaan lañ leen libéré wuñu Pastef léegi dañuy continuer di déglu Pastef man maa wax ne c'est des incompétents xaaral sax ma ñëw ma tégal sa ndey génn na fi gars ngeen baal ma ci saag man maa ne

waa Pastef am ngeen ci responsabilité jël leen seen responsabilité ngañ Demba Touré comme yow commencé nga dara eggali ko mais loolu lan moo ci nekk mais li ma wax d'accord leen ci mais li ma wax moom la moom la ngañ Demba Touré wax di li ma wax moom la ngañ Demba Touré wax nee na dañuy génn ji dañuy jëm libérer Sonko waaye bu ñu ko waxee gisuñu résultat vendredi la ko waxoon ma ne ah mën na am guddi gi lay xaar parce que man vendredi damaa def live bu doy waar am naa presque trente mille mané xeyna gaay amna gars bo xam bam ko defé man am naa 37000 vues bamay muju xol mais lan la wax est-ce que damaa xas Ngagne Demba Touré xasuma ko dama né gaay xeyna day ñu baye ba bu ñu jullee ba paré xeyna na Ngagne Demba dina genn mu wax ni fan la itinéraire mais julli nañ ba paré gis ñu Demba Touré ma ne ci guddi gi mané xeyna stratégie la Ngagne xamna lutax xamna limi def loolu la wax vendredi je lui donne le bénéfice du doute ah vendredi ñëw dégguñu Ngagne Demba Touré samedi ñëw dégguñu dem ba Touré mais xale yi léegi dañuy dem ubbi nañu internet Macky Sall dafa muus parce que booy Matam yi dañu commencé di dagg di tijji ay boîte di dagg internet bi Macky Sall xam na ne loolu arrangé wu ko indiwaat internet bi te lu indiwaat internet bi dafa dafa xaw calme te internet bu ñu ko tijjee xale yi toog nañ 3 jours 4 jours defuñu internet ku leen wax waxu waxu Sonko sax duñ ko faale ñoom dañuy dem di seetaan ay challenge wala di seetaan ay lu ma xamul léegi mayna gagne Ngagne Touré vendredi mayna ko samedi dimanche du ko may dara d'autant plus que ci diggante bi japp nañ fi Juan Branco mi ngi nii ci diggante bi japp nañ Juan Branco hein, xaar hein, ah bu len déglu Mola Morgan Mola Morgan néna man m'a wo Juan Branco mako wax demal raso. Mola il est malade il est malade mais instant yi taluñu Mola taluñu Mola man. temps sax newoon naa baal naa parce que Mollah bu dee da nga mëna a fen fenal fen wax ni Sonko mi ngi dé wala dafa sonn man lool sax au moins nga sensibiliser nit ñi mais Mollah buñ ñu wax né ah ah Branco ah yow ya ko wax demal roso ya ko wax defal li defal la ñun ñun ñu lool instant bi mi ngi nii te Mollah dafa né kenn japp ko Mollah mo gën dafa né Branco kenn japp ko Akhenaton nee na Mollah Branco kenn japp ko mi ngi ni Branco japp nañ ko Branco japp nañ ko mi ngi nii tukulóor di ko ñaawal xalpulaar yi di ko ñaawal gis nga gis nga ni ñuy ñaawalee Branco mais lii rafetul ay senegale kan moom wax arrête kan moom wax arrête béya béya woon amer arrête lan lan laay arrêté gis nga ni ñu koy ñaawale gis nga ni ñuy ñaawale ah mais est-ce wuñ ko Ngagne Demba Touré est-ce que arrêté wuñ ko buñ ko jàppee duñ ñu ko wax de gis nga ni ñuy ñaawule Branco <coughs> gis nga gis nga ñuy làkk seen tukulóor di ñu ñaawal hmm? kan mooy amane preuve eh kan moo amane woo baya wóobal Mollah Morgun bu dee moom nga wax nee na kenn jàppul kenn jàppul Sonko mais léegi mu ngi nii wax nga naan ma tok stop talking shit about mola mais yeen la len di wax ni mola mo wax ci bopam mune ne ah bàyyi leen bàyyi xam nga li motax senegal du avancer ah li motax senegal du avancer parce que yeen da ngay na fara fara far far bu mop xaar la ma tagal len li mola wax xaar leen deux secondes rek man mola mo wax ma deg gaay sax diko wax wa bu len ma tardel way man taluma mola fi nek ni ñun ñi fi mu nekk nii libéré Sonko lañ wax waaw euh, may leen ma mën na am dinaa ko gis su ma ko gisul ma ma avancé mais man maa dégg Mollah ci boppam mu ne man maa wax Juan Branco lii maa wax Juan Branco laa ma ne ko Mollah ñun talluñu loolu instant yi waaw waaw de toute façon gis nga yéen a may yéen a may déstabiliser yéen a may déstabiliser man mais xam leen ne daal <coughs> Branco jàpp nañ ko waaw xam leen ne Branco japp nañ ko léegi Branco est bel et bien arrêté waaw kay avocat français mi sax bind nañu kon bu len wax ne ñu ko avocat français yi bind nañu ñu né ah voilà kay bo waaw bo euh, il refuse de s'alimenter Branco dafa maître Sileli ci bopam bayaa woo man yow mi di wax ne Mollah dafay indi ay preuve bu dee Mollah ngay wax maître sireli mo fa dem pour nek avocat am Branco ne ko baxna baax man may nek sama avocat bop ñu laaj ko juge bi laaj ko juge du deuxième cabinet juge du deuxième cabinet laaj ko mu ne ko tontu mala ñu yobbu ko ñu yobbu ko euh fele fele lañ ko yobbu ñu yobbu ko euh Rebeuss parce que bëgguñu ko yóbbu bëgguñu ko yobbu yóbbu euh, bëgguñu ko yobbu yóbbu Sébikotane parce que bu demee da fay nek ak mi ngi nii Anita Diop nga xam ne Anita Diop kan lay liggéeyal Antoine Diome kii du Branco kii du Branco ñu koy jël nii ah kon bu leen wax ne jàpp ñu ko jàpp nañ ko mu ngi nii xoola Branco la ñu jàpp nii même c'est pour ay eh, jàpp nañ ko ay ay ay ay ñu ngi nii jàpp nañ ko Branco moo nekk nii xaaral xaaral moo naat leen xëy na am dégg nga gars yi naan c'est bien ça xool mooy kooku du Branco kii ñuy xëcc nii xaaral ma xool ndax dina feeñ non instant yi dañuy takk bato bi rek dañuy takk bato bi xaar leen am waaw Antoine Diome wax na ko mu ngi nii xool leen Anita Diop

Anita Diop moo ko bind mu ngi nii Anita Diop mu bind merci monsieur le ministre ah waaw daf leen piéger moom mën naam daf leen piéger mais en tout cas jàpp nañ ko bàyyi leen di wax ñi jàpp ñu ko dégg ngeen xoolal Juan Branco de la DIP dégg xanaa mën ngeen lire dégg nga waaw léegi béya man gëm nga ko léegi ak kan loolu leer na xaar dem ci page Ousmane Diagne ngeen xool lan la bind foofu defe naa Ousmane Diagne am na lu mu ci wax gis ngeen Ousmane Diagne Ousmane Diagne huitième jour grève de la faim bu pros après euh, Ziguinchor démb li moo fa xew gis ngeen li xew Ziguinchor waa Ziguinchor ñoom fàttewuñu Sonko kër yaayu Sonko lañ dem ñoom ñëpp def benn marche tal ay sondel dem keur ay Sonko wa gay gën la laaj gën la partager lay bi jeexugul de tay sama yaram dafa tang lay bi jeexugul on va libérer Pros semaine prochaine mom dañ koy bàyyi par force wa gay yi gën la laaj gën la partager ku bëgg Ousmane Sonko waaw fogg len man stratégie la len di wax waaw gis ngeen lolu mo Ousmane Diagne moo ñu ko wan lettre bang ni lettre Sonko bi Sonko ko bindé pour contumace ah ak lan gis nga gis nga booy ni ñuy def maatam fibre fibre internet yi la ñu dagg gis nga gis nga bii ni ñu ko da ni ñu ko taale gis nga booy dañuy tijji boîte yi yàq fibre internet xam naa nag loolu tax Macky Sall ci daal di indiwaat internet lépp la ñuy dagg kii nee na je suis déçu des jeunes de Dakar non il ne faut pas être yi dañu amul ku leen ku rek la bu wax ne je suis dessus gis ngeen lepp lañu paralyser gis nga avion yi sax dematu ñu vol bi annulé vol bi li motax ñu annulé ko na metti deng nga tan yépp vol bi ay 22h no la fi yexi deng nga au de 7h air sénégal sax dañ ko paralyser mais tan yi à partir de tay le vol il est là bloqué annulé Vous avez perdu un allié à Dakar, mais Barthélemy. Barthélemy, quand vous avez perdu du temps gis ngeen waaw léegi xaaral ma wan leen lii yëpp page Ousmane Diagne xaaral ma dem xaaral ma dem page Kayz Fof Kayz am na lu mu jot a wan je pense Kayz Fof am na lu mu jot a wan ci Branco peut-être leen wax ne jàpp ñu Branco Branco jàpp nañ ko waaw léegi euh, l'arrestation par le régime brutal de Branco Branco avocat mu ngi nii xam nga. même Kayz a confirmé nako ko sof confirmé kon bu que wax ne Branco ah, lettre lettre lettre ah, avocat Branco yi bind nañ ben lettre yen ñi gëmul lettre la défense de maître Juan s'organise gis ngeen ci communiqué de la défense de Branco nous avons été informés de la remise de notre confrère Juan Branco au euh, aux autorités sénégalaises par euh, euh, par les autorités mauritaniennes alors que celui-ci s'était rendu dans ce pays régulièrement et en vue d'échapper à la persécution politique que lui avait été, lui avait été, promise au Sénégal. Lettre B, avocat Branco, il dit, c'est ça Sonko. Qu'on ils parce que ont Branco a internationalisé le combat parce que l'avocat euh, Branco si ba Sonko nous déplorons vraiment cette remise qui méconnaît les règles de droit international et expose expose notre confrère Juan Branco à de graves violations de ses droits humains. Aucun avocat ne devait ne devrait être inquiété en raison de l'exercice de sa profession, où qu'il soit dans euh, le monde, quelle que soit la défense qu'il a choisie et quelle que soit la personnalité de ses clients. C'est là, sauvegarde des droits de la défense qui est en jeu. Le combat juridique que notre confrère Juan Branco pour son client M. Ousmane Sonko Dengue. Ousmane Sonko le combat juridique, judiciaire que mène notre confrère Juan Branco pour son client, M. Ousmane Sonko, ne justifie en aucun cas la persécution politique dont il fait l'objet à Dakar. Les nous exercerons toutes les voies de droit adéquates pour mettre fin, aux procédures menées contre euh, Juan Branco au Sénégal qui relèvent d'une instrumentalisation pure et simple du code pénal à des fins politique déjà nous arrangé ah, nous appelons toutes les autorités françaises espagnoles Branco espagnol aussi ah, et bien sûr sénégalaises à réagir en vue de permettre la remise en liberté de notre confrère Juan Branco Paris le 5 juillet le 5 août 2023 fii moom daanu na fii moom daanu na waxul dëgg Juan jàpp nañ ko même Akhenaton déggoon naa mu ne jàppuñu ko mais léegi leer na jàpp nañ ko jàpp nañ ko léegi nag lii dafa ruslu lii dafa ruslu benn tubaab xonq nopp ah bëgg Sonko di xeexal Sonko ba ba ba da lay leer ah li tax avocat yi bind turu Sonko ci biir lettre bi c'est pas un hasard li tax ñu bind sun ci biir lettre bi c'est pas un hasard ñoom dañuy xeexal Sonko dañu bëgg internaliser euh, euh, xeex bi Branco ba muy ñëw Sénégal dafa jël ay risque calculé. li mu am sax espéré ko grand Branco dafa yaakaaroon ne bu demee Gambie rek xaw ma Gambie la jaar xaw ma fan mën nañ ko jàpp rek yóbbu ko directement mais moom dugg na ñëw ci conférence de presse wax li muy wax ah ba pare euh, dem na ci dëju baara ba xale bi ñuy rey Pikine kenn jàpp ko génn na Sénégal Sénégal yi jàppuñu wa waa Mauritanie ñoo ko yoole wa Mauritanie ñoo ko mais mais Branco échappé na ba dem Mauritanie légui buñ ko jappé daf ñuy gëna arranger tant que Branco mi ngi fi xana torture ñu ndaral torture Ousmane Sonko buñ ko torturer mais à partir de la semaine prochaine la vie de Sonko va être en danger la vie de Sonko va être en danger motax man may may sonju wa Pastef bayi len sen yàccaaral bi bayi len sen yàccaaral bi. ngeen génn xeex bàyyi leen dialogue Macky Sall bëggu leen waa APR bëgguñu leen dañ leen bañ dañ leen ragal parce que ñaari at ngeen topp leen tiital leen taal dëkk bi ñuy daw di laqatu ay hôtel tiit tiit nelawuñu ñaari at nelawuñu Mamour Diallo mu ngi doog a nelaw Mamour Diallo mu ngi doog a nelaw ba ñu jàppee Sonko semaine bi te te premier jour yi nelawuñu de parce que ba ñu jàppee Sonko ñoom nee nañ wuy sama ndey tey la ñuy de dañoo risqué Macky Sall dafa risqué ne xaaral mu xool sénégalais ñaari fan lay xeex ñetti fan bàyyi te effectivement loolu la ñuy def ñetti fan la ñu xeex bàyyiwaat mais lan moo tax ñu bay parce que parce que bu dee dem Demba Touré def ñu xale yi maa ngi leen di woo tel jour jóge leen fu nekk ngeen ñëw Dakar xale yi paas ñëw Dakar gisuñu dara mais dañuy paas at dellu beneen yoon dem Demba Touré boo ne xale yi génn ñëwal est-ce que dinañ ñëw il faut ngeen di calculer loolu balaa ngeen di génn di def di di déclarer di ñu wax def leen lii def leen lii xool leen éventualité yi te su ma doon gañ Demba Touré dama naan maa ngi def communiqué bi boo leen ma déggul lundi jàpp leen ne dañ maa jàpp mën na am dañ maa jàpp mais Ngagne Demba Touré waxul loolu yëpp mënoon na wax maa ngi def yëf yi dimanche samedi dinaa génnaat pour jox leen itinéraire ci suuf mais boo leen ma déggatul fii ak lundi wala dimanche jàpp leen ne du si sama coobare xëy na dañ maa jàpp wala lii wala laa mais nga toog dimanche ñu waroon xeex. libere Ousmane Sonko Ousmane sonkoo du dundee yaakaar ñëpp du dundee yaakaar ñoom xar mu mu xàq dama leen yërëm parce que lu xew ci biti xam nañ lu xew ci bu ñu am xam xam nañ ko ñoom Karim ak waa ba ñu gisee ba ñu déggee ne jàpp nañ Sonko waa waa Rëbës yëpp dañoo kontaan ba ñu jàppee Sonko waa Sèbi xotaan yëpp dañoo kontaan parce que ñoom jàppoon nañ ne xanaa nag bu ñu jàppee Sonko xale yi dinañ génn libéré ñu waaye fu mu nekk pour la première fois pour la première fois. chacun de nous a douté pour la première fois depuis deux ans ah, pour la première fois depuis deux ans maintenant depuis dix ans Sonko c'est la première fois nous avons commencé à faire ah waaw projet bi pas du ah projet parce que même si vous avons Ousmane Sonko gars dañ du même si Sonko ñetti fan yu njëkk

Mame oh, Mbaye Niang mi ngi kontaan gis ngeen Moustapha Diakhaté keroog bu mu demee jàkkaarloo <laughs> di ree doomu xaram boobu kooku la ñu war a njëkk rey dafa ruslu pour la première fois nit ñaa ngi commencé am doute ci projet bi mais man je refuse je refuse may am doute man tey laa gën a déterminé tey laa gën a gëm ne bu ñu defee lu def semaine bii di ñëw billahi wallahi taala bu ñu war a def lu ñu war a def man tey laa gën gëm ne tey la ñuy wuus waaw waaye nag waye nous la ci fekk loxol borom mënuñu tok rek suñu aduna yépp ñu ko ci Pastef ndax Pastef kat ñi ngi jeex waxuma la Pastef mais xalé Sénégal ya ngi jeex ndax fu ñu ben ben membre nañ fa 20 pap Sow bañ koy sangal Sangalkam jàppale 23 Et té boy ñen la ngay fo moy ñi guerrier Antoine chaque jour mi ngi ñu France la France la nekk de mais ñu koy topp di ko top di ko top ba jàpp ko benn expatrié Pastef la bokk de Pastef France dama fàttali nu mu tudd sànq gis naa ko ci page yu est-ce que nekkul woon ci page yu Ousmane Diagne xaw ma xaaral ma génn leen ko ah chaque jour ñi ngi jàpp di jàpp mais ñun léegi ñu jeex gars yi barki Rasulaay bu yàggee ñu bu yàggee dinañu jeex te yan prison yi dafa fees léegi bu ñu leen jàppee dañ leen yóbbu ci ay plage dégg naa di leen torturer am na nu mu demee sax ñu ngi di rey di leen sànni ci géej gi même prison yi dafa fees comprendre waaw moo tax nag ma ne euh, euh, xaaral am na ku ñu jàpp xaw ma fan laa ko gis xaw ban page est-ce que gis nga euh, benn waa bu nekk France oh sorry maa ngi benn gars yi waa ji nan xam nan la tudd wax leen ma benn waa ji nekk Mbour Mbour lañ ko fekk ñu jàpp ko daf naa Ousmane Diagne ñoo ngi ko fan laa ko gis ndeysaan nga ñëw vacances ah nga ñëw vacances nga ñëw vacances ñëw rek ñu jàpp la ñaaw na wan est-ce que du woon page Anita Diop laa ko gis kon dafa ñaaw ku xam na la tudd wax leen ma ko benn waay ju nekk Mbour expatrié France la nekk ñëw vacances dem Mbour Pastef di xeex xam kooku dafa jëris yéen waa Pastef bu leen ñëw vacances boo leen dañ leen jàpp ah? waaw jàpp nañ ko gaa yaa ngi jeex gaa yaa ngi jeex waaye nag Macky dafa war comprendre ben affaire 14 millions mënoo tek 14 millions mënoo tek 14 millions amna na fi wax je suis déçu vraiment xalé Dakar rusloo ngeen ma déedéet déedéet bu len xass xalé Dakar xalé xale Dakar xamal la ñuy xaar ku len wax fan la ak kañ la lolou la xaar fan la ak kañ la té lolou néna len une voix autorisée man mr cheikh bo ba léegi mang koy wax. joxena stratégie joxena sax ni ñuy défaré cocktail molotov néna len cocktail molotov légui soxlatul essence moo la la wax briquet almet pena essence tal mais essence dafa cher briquet almet diwlin kay tal briquet almet diwlin mat tal briquet almet mbalit lépp lo len dajale ci ci ci ci ci yoon bi Dakar ci ci ci koñ jël leen ay xeer yu mag a mag teg ci tali yi baare jël ay mat jël kees jël këyit mbalit policier yi bu ñu ko noyee dañ ciy am problème loolu moo gën diwlin bu dee damaa juum wax leen man dama yaakaar ne diwlin boo ko sottee ci mat boo taalee dina boy dama yaakaar ne boo jëlee euh, euh, butéel nga def ci diwlin def ci morso loolu cocktail molotov la du dëgg boo jëlee xeer def ci wërale ko ak morso takk ko mu mel ne frond nga def nga tooyal ko diwlin ba mu tooy xoos def nii wëndal ba mu jàpp boo ko sànnee policier loolu arme la boo ci amee trente wala cent policier duñ la mënal dara ñun ñu ngi joxe ay stratégie diwlin diwlin moo gën essence ndax essence boo dem du ko jënd sax gars yi dañ lay soupçonné boo ko dencee sa kër wóorul comprendre nga ut leen diwlin ut leen ay morceau pono dafa jafe am pono dafa jafe am xam nga ah xeer yu rëy a rëy ngeen jël baare tali parce que policier il faut ñu liggéey loolu léegi parce que police bu ñëwee dafay bëgg a dégager tali mais xeer yooyu pour dégager dégager ko rek problème la temps ñuy dégager xeer ngeen sànni leen ay xeer wala ngeen sànni leen li ma leen wax ah euh, morceau tooyal ko diwlin ba mu tooy nga takk ko ci xeer takk ko ak morceau ak benn genre buum di wëndeel policiers yi bu ñuy jéem a dindi nga sànni leen wala bu ñu nekk seen biir oto nga sànni leen seen biir oto bu ñu génnee nga taal oto bi parce que xex bi fu mu il faut que ñu ne ñu def guérilla guddi gi am ay boy yu genn ciblé comme li leen won sank boy yi dem taal Shell Shellu euh, Grand Dakar il faut que ñu dundolo leen fitna Wa APR fi mu ils sont trop à l'aise gars ils sont trop à l'aise il faut que ñu commencer di terroriser sen nday comme ñom légui dañu tuddé terroriste guddi gu nekk ciblé leen ay ay traître yi ngeen ñëk ciblé waa Seneweb gis nga ñi ñi ñi ñu ñi nga xam ne ñoom ñooy diffuser fausse nouvelle waa Senelec Seneweb ñoom ngeen di njëkk ciblé comprendre Seneweb booy Diallo foo leen ko gis taqaar leen ndeyam gars yi ngeen baal ma Diallo nedd ko bandu Babacar Kebe ñooñu foo leen gis téegal leen seen ndey parce que Diallo moo fi waxoon Sonko dafa def vol à l'arraché loolu mooy relance am waa ji ne ko euh, Serigne si ne ko mais téléphone bi sàcc ko loolu du sàcc mu ne mais est-ce que du vol doomu xaram boobu moom la fi Macky Sall yóbbu woon Dubaï waaw moom ak ñoom faa ay dara ak ak ak ak ak ak rangu ñoom ñoo demoon Dubaï ñu dugal ci hôtel yoo xam ne ay 1 million la ñuy fay par jour ñooñu APR la ñuy liggéeyal Seneweb foo leen gis jàlloon net da ko bàndu téegal leen dem Aïssatou Diop Fall foo leen ko gis Dakar leen dem ak kan euh, Omar Faye surtout kooku Omar Aïssatou Diop Fall moo waxoon Sonko bu yoboo nga bloqué ma Aïssatou Diop Fall sa chaîne man chaque jour sa chaîne Omar Faye moo ne woon Omar Faye moo fi nekk ak bëtam dëggandaayam yooyu mu mel na looy muy wax di def ñu di xool gauche di xool droite noppi di xool gauche ñuulaayam foo leen ko fekk refus kat téegal leen dem ba jaxate ba ngeen di taal oto bi mais oto bi yëpp ngeen waroon taal ci ñooñu la ñu commencé gis nga ñaaxarañ dóor boobu ñu ko dóor ci ngeen ko gëj a gis ñaaxarañ moo doon dem di snapal euh, euh, euh, Macky Sall waaye bu mu demee France booy booy kii ko xaaral ma woon leen ko dóor bu saf dëpp xaaral ma ko ñaaxarañ attaquer à les terroriser... dina il faut que nous Nous à terroriser Parce que ne nous rasulillahi nous mënu leen diriger Sénégal c'est pas possible Nous ne nous rek xarañ attaquer Nous bu gis Nous dara <laughs> non non ñaa xarañ attaqué ñaa xarañ dafa sàcc benn booy benn téléphone nit ñaa dootu ko defati dootu ko defati oh gars yi may leen ma deux secondes je m'excuse may leen ma il faut que ma wan leen vidéo boobu xam naa ne yéen ñëpp gis ngeen ko sax xam naa ne gis ngeen ko mais des fois il faut ñu leen di wan ñaa xarañ loo attaqué par des jeunes mu ngi nii xool ko defati de il faut que ñu commencé leen terroriser yéen ñu gëm suñ ko dem prison xaar leen rek xool ko gis nga dóor bi xool ko xool ko dóor baa ngoog dip xaar leen waaw defe naa jàpp waa ji moo koy dóor xool dóor bi oh daal na gis ngeen mu nan lolou du problème lolou du problème lolou du problème ñaa sama way la ñaa sama way la bon ñewuma fi fii pour mom moom waxtuma sax bu len ko attaquer parce que comme mom arrêté na comme arrêté xala arrêté na xolal gis nga dal bi dor bi voilà traître traître les collabos là foo leen gis tégal len Binta Diallo Binta Diallo nekk ko bandum surtout mom moom nga xam ne Bouba Ndour dakaa génne euh, soir d'info foo leen ko gis téegal leen dem mais TFM TFM barki rasul lay dañ koy taal Bouba Ndour rus naa la trop mais bu leen rey Bouba bu leen rey Youssou Ndour mais boo leen libéré wul Sonko laa wax Bouba waxal sa mag mu wax mu wax parce que sa mag mooy Youssou Ndour Youssou Ndour lu mu wax Macky Sall Macky Sall da koy def Buba waxal Macky Sall mu bayyi Sonko billahi bu bayul Sonko TFM barke rasulilaay dinañ ko taal dinañ taal RFM dinañu taal euh, euh, euh, observateur yeen nak duñ len ray parce que buba lañ ci rus waye li ngeen mom dinañ ko taal Seneweb dañ koy taal dañuy taal dem ñu fi nek ñepp di collaborer wa wal temps tay gis nañ len ngeen commencé di yox yox yi bàyyi len sen yox yox yi mais Walfadjri yeen comprendre nañ len lu bon bon xeexal ngeen ñu ah bougan sax mën nañ ko comprendre mais télé Ahmed aydara xawmu fu mu nek foo leen ko gis taal leen ndeyam xawma ma 2 la xaw ma 2A xaw ma lan Ahmed Aïdara mooy jaam bu mag bi mais traite bu ñuy commencé ci ay cer Thierno Diop mbuucaa mbuuci comme ñoom kenn gardé wu leen ci ñooñ ngeen di commencé te boo koy def filmer leen ko bu leen leen rey tegal leen ba ñëpp gis ko comme ni ngeen def ñaaxare xam nga ñu won leen ni ñun we mean business maanaam fowuñu fowuñu Sonko Sonko munu leen ko mënu leen koo tëj walla ngeen rey ko yaakaar ne. senegal xale yi dañuy toog fàtte billaahi wallaahi wataalaahi boo leen gisee diaspora rek li génn démb boo leen gisee li génn démb France ngeen xam ne nit ñi mer nañu te nit ñi duñu mës a bàyyi te diaspora bi ñun dañoo am moyen ñu ngi liggéey dañoo yor xaalis bu jaree ñu yónnee ay millions boo yi jënd essence dinañu ko def billaahi wallaahi taalaahi bu la neexee ngeen tuddee ñu terroriste bu la neexee ngeen tuddee ñu lu leen neex mais barki rasulillahi Ousmane Sonko boo leen ko bàyyiwul boo leen ko reyee dañuy téegal seen ndey amul sëriñ amul Balla Gaye amul Modou loo amul Sénégal dañ koy yàq ñëpp perte mais li ngeen bëgg dafa yomb Moustapha Diakhaté bu dee da ngay dem euh, jàkkaarloo di di reetaan Mati Trois Pommes xam naa ne instant yi mu ngi def laay wooy sama ndey wooy sama sama sama terrain Almadies bi mat na wuy sama kër bi mat na ñoom Californie xam naa ñu ngi naan waaw waaw sama 4 x mi ngi waaj a ñëw doo leen ko fekkee parce que Rasoul laay doo ko fekkee mais day yomb gars yi day yomb trop li Pros liguey depuis 2014 ah li mu liggéey ba fi ex ba fi nek président de la république xey ben jour rek nax say li comme comme mystique loolu lay nduru affaire bi ñom dañu dem end man affaire mystique yalla xamni ne musumako mosuma gëm mais li mystique rek la mën a doon man lii li ñu dal ni li ñu dal ni man ba léegi damay teud yow di tit nee tay damay yow sama fit bi ni raf mënu ma ko gëm mënu ma gëm ne Ousmane Sonko mi ngi prison c'est pas possible 7 jours 8 jours semaine prochaine on va libérer Prox. Tes responsabilité bi ci biram Souleye la dess. responsabilité bi ci Ngagne dem Touré la dess. responsabilité mingi mingi ci El Malick responsabilité ci e euh, e euh, Abbas Fall yéen waa yéen ñi des Mahécor Diouf xaw Canada nga nek xaw fo nek. demal nga ñibbi parce que ñu ñoo la def maire defu ñu la maire pour nga dem Canada Mahécor Diouf jëlal bi avion nga dem Géejawaay nga jël xaalis nga nga yéen ñëpp ngeen def benn say def leen benn say moo gën Macky Sall di leen di leen jox diviser pour mieux régner di leen cibler par benn benn di leen di leen jàpp bu léegi nit ñi dañ coo dañoo dem ba tàmm ko jàpp bi dañoo dem ba tàmm ko rey yi dañoo dem ba tàmm ko waaw parce que parce que xale yi lan la ñuy xaar lu leen choqué loolu la ñuy xaar moo tax démb bañ ma ne Pape Alé Niang dee na ma daw ak ma daw ak euh, kii bi parce que loolu bu amoon xale yi nag dinañ génn mais ñun ñaanuñu nous ñaanuñu Pape Alé Niang dee wala Sonko dee ba pare ñuy dogo. a euh, jëlee ñu fiy doog a jëlee Macky Sall bëgguñu nous li dal Thomas Sankara li dal Patrice Lumumba bëgguñu mu dal président Sonko boo leen bañee mu latron Sonko loo leen mën a xalaat xalaat leen man fu que d'ama damaa jaaxle ba saa yu ma toogee maa ngi jéem a xool ay solution gis ngeen ma démb sax interpellé naa interpellé Anna Diamanka ma ko Anna defal comme Willy Mandela parce que Anna tu es appelé à être première dame. yow nde Khady Kebe boo leen mënee génn même bu dee benn live sax ah boo leen ko mënee def def leen ko parce que fi mu nekk ñëpp a war a xeex Ousmane Sonko bu leen xaar kenn ñu naan la aana ah, non non yow jabar sonkoo nga non yow toogal rek wàccel kaamil sa jëkkër ne woon na la bul wax li Sonko bu la ne woon bul def live defal live man Mister Shake njaagu sonkoo maa la ko wax parce que boo leen sàgganee dinañ rey sonkoo boo leen bëggee seen jëkkër def leen action xam nga def leen action mais mais comme ni mu ko waxee action tey tey émission bi wa Pastef lay attaquer parce que man mr Shake bu doon man la rek stratégie bi stratégie bi ma joxe billahi wallahi taala bu ko ngeen jëmb Touré joxe won Sonko libéré libéral, kou fi nekkul won lan la wax lan la wax ngañ Demba Touré boudé dee may déglu wala kou xam dem ngañ Demba Touré kou mu nek en contact mom wax ko mu def stratégie bi affaire bi du du Dakar kessé Ousmane Sonko senegal yëpp ko bëgg Ousmane Sonko waa Matam nelawatuñu waa Ziguinchor nelawuñu waa Fongolimbi nelawuñu waa Tombakorokotoo xaw ma nelawuñu kenn nelawul kon bul wax na ñëpp ñëw Dakar dakaar li fi nekk ci nit doy na sëkk ak barke quartier yi dafa bari ngañ Demba Touré woowal Sénégal yëpp ci benn waxtu ah, ak ay bërëb fi ñu nekk ñoom bu kenn ñëw dakaar wala ku bëgg ñëw Dakar d'accord ku mën ñëw Dakar bu la neexee nga ne ku mën ñëw Dakar ñëwal Dakar d'accord mais yéen ñi ñëw yéen ñi mënul ñëw Dakar ne ñëpp génnandoo trois heures tey sax laa waxoon wala suba parce que affaire bi amatul xaara bu dul tey na nekk suba Ngagne Demba ture Sénégal yëpp ngay woo Cheikh coro war nga mën a jox war nga mën a def dérëti boobu non xëy na yow day metti ci yow parce que yow murit nga mais Ngagne Demba Touré wala keneen Abass Fall dawal nga làqatu nga nekk dans la clandestinité kii Mari Sañaate bu ko defoon dinañ ko déglu ku nekk Pastef nga ne nag lii Sonko moo wax pour ma wax ko ne ñëpp a génnandoo trois heures ba dix heures ci guddi toog leen seen koñ xam ngeen ni ngeen di manifester baare leen commencé leen commencé leen par baare seen tali taal boo leen amee pneu taal leen boo amé essence talen leen boo amul essence jël leen ay mat wala mbalit meuna sax nek opération set mbalit keuy carton lo leen xam morceau lu meuna tak takk jël leen ay xéru ngand ngeen baré tali ku nek sa koñ barél tali de 3h à à 10h gars bu ko Sénégal yëpp défo loolu yaakaar nga né Ousmane Sonko jaralul loolu wa Sénégal mais gars mais Ngagne Demba Touré Ngagne Demba Touré li c'est le bon sens xalé yi Ousmane Sonko jaral na leen lu ëpp loolu génnal sa koñ baareel tali taalal boo taalee lan mooy am police day ñëw mais police mënul nekk fépp police mënul nekk HLM nekk Medina, nekk Grand Yoff nekk Liberté 6 même waxtu loolu tax bo ñuy def il faut ñu def une action synchronisée une action généralisée il faut une action synchronisée synchronisée mooy loo xam ne une action simultanée mooy loo xam ne

comme waa Grand Yoff boo leen dóore seen tali police ñëwul nan ngeen di ci Auchan bi ngeen dem wanoon naa leen ko démb waa Grand Yoff bu police ñëwee ngeen xeex ak police xeex ak police police daw ngeen dem ci Auchan yi bu police dawee rek yéen dugg leen ci dëkk bi avancé leen bu jaree ñu dem pale ñu dem pale mais munoo wax ñëw leen ñu dem pale pale kenn du fa demee noonu pale kenn du ko programme ñun ñun suñu objectif dañuy xeex ba armée bi ñëw bu jëree Macky Sall wax couvre-feu moo xam mais waruñu ko may jàmm na def couvre-feu te même bu defee couvre-feu du tere ñu ñu def lu ñuy parce que armée bi tamit ñun suñu armée mënul nekk fépp d'ailleurs mu ngi ne nee armée bi da koy yóbbu da koy yóbbu fële. xam nga euh, technique bii lu tax mu baax xam nga technique yi lu tax mu baax li américain di wax gën a stretch the police thin on va les étaler sur tout Dakar. on va étaler la police, la gendarmerie, l'armée sur tout le Sénégal. Et puis on va les avoir à l'usure, comme nous avons dit. Parce nous avons dit fan par fan la Nous avons par fan buñ ko fan yu nous man gëm dimanche non dimanche c'est trop tard pour lundi mardi mercredi la wax bu ko Sénégal quartier exception

dàmbooj kumu yap, yab kumu yap, mu yab nee na candidat yi la gis Sonko ak Sirisi Sirisi fa lay jaar ba nek candidat bu len bu mu ko may bës bu mu ko may bës koku nee mak Macky Sall Sonko rek la bëgg ay way Macky Sall Sonko rek la bëgg ñi ngi waxtaan ci suuf ñi ngi waxtaan dul kat boobu dinañ ko dinañ ko def président yow yow yow yow yow yow est-ce que ça va euh euh, euh man limay wax c'est clair buñ ko ñetti fan. buñ ko defee premier jour HLM Barré, Raiba... ak marché HLM 5 ngeen di taal raay marché m 5 Pikine buntu Pikine Charoy, poste Caaroy Géejawaay croisement Canada à ma ah waa Liberté 6 rond point Liberté 6 ah Médina Blaise Diagne bi côté RTS Blaise Diagne bi ngeen taal police ñëwul. parce que police dañ leen woo koloban wala ñoo leen fenn jubal leen rt standard koloban tamit yene yene mom yene mom vouloir euh, centenaire yene xali xàlli yoon bi foofu yéen ak wa face centenaire moy son objectif ak place de l'Obélisque bu police ñewul foofu ngeen avancer dem te euh, euh, RTS dugg ci bir sanni fa nday ay cocktail molotov gardi ñu ñep tass bu police ñëwee ngeen ngeen sey boo leen mënee say côté côté euh, euh, euh, tribunal boo leen mënee egg foofu ngeen egg fa boo leen mënee kattan nday tribunal bi maa xam jàllo boo leen ko fa fekkee téegal ndeyam noonu la ñuy xeexee noonu la ñuy xeexee il faut que ñëpp génnandoo mu nekk révolte Macky Sall day paniqué policier waa APR commencé daw ci oto koo leen gis muy APR ngeen daqaar ndeyam taal ndey seen oto boo leen ko defee du ñu rey ko mais ngeen toog rek ne yàcc ñu yesar o oh, dañuy assassiné Sonko boo demee ñu ngi koy pompé par guddi comme ni ñu defoon euh, xale nu mu tuddati euh, Imam Ndaw yéen Ousmane Sonko jaaralu leen lii man de bañ ko jàppee ba léegi aw ma jàpp yére bi dama noonu du ma ko sol mukk temps yi gis ngeen ma damaa dem jënd ay yére yu bees billaahi wallaahi taalaahi même yére bi dama noonu dootuma ko sol damaa jënd yére yu bees mais sama xel dafa ne comme waxu guerre laay wax tey xaar ma sol parce que gàccee faal ana brimel bu jugee avec ma formation de militaire gatchefal. j'ai fait l'armée de l'air j'ai fait l'armée de mer j'ai fait l'armée de terre je sais faire la guerre personne ne peut me taire ne peut me faire taire man du ma seer gàccee faal kenn musu ko gis sax mu sol yére yére militaire man au moins amna naa militaire Kër Massar merci nan la def ba fatte Kër Massar Kër Massar xam ngeen fi ngeen war a taal kattalal nday foofu yëpp bar ñi yéen waa péage bi ngeen jël Dakar ndeyam guerre la war a doon guerre bo xamné Afrique yëpp dañuy fier ci ñun parce que ñun Sénégal ñun aduna bi ñun lañuy ñuy xool ñun ay champion lañu ay vainqueur lañu te Afrique yëpp dañ ñoo tek bëtt billahi wallahi taala dafa am benn mission bo xamné yàlla moko def ci sénégalais parce que touba bi dañu bëgg Niger mo leen déssé ñu ne il faut que ñu am man léegi laa doon seetaan benn touba tubaab bi neubul mom touba bi dafa jëful. mu Niger duñ ko bàyyi parce que buñ ko bàyyee Niger rek la ñu dese te France day dee dañoo soxla Niger pour dund moom waxul dañoo soxla Niger soxla Niger pour base base de journaliste ne ko non dañoo soxla Niger pour base mu ne ko déedéet soxla wuñ ko pour base pour lekk dañoo soxla Afrique Afrique moo ñuy dundal ñun nag Sénégal ñoo war a dekkal loolu parce que dafa ñaaw Mali moom boppam Burkina Faso moom boppam Guinée moom boppam Niger du jëngu doomu xaram Macky Sall pour toog rek mu ne day yónni ay soldats parce que moom yaakaar na ne bu jaxasee Niger après bu ko neexee mën na def troisième mandat quatrième mandat te xamu ne looloo koy daaneel ñun ñoo war a libérer Afrique africain yëpp ñoom Semi Keba dañoo am yaakaar ci Ousmane Sonko mais yaakaar boobu bu tasee mais dinañu rus quoi dinañu ñu rus dañoo war a tàngal Afrique comme ni ñu ko tàngalee woon ba euh, euh, euh, le passé. le 8 mars gis nga le 8 mars Al Jazeera mi ngi fi France 24 Le Monde New York Times di boy, boy, gentle, Gentle, yoré sen drapeau da ngeen faté xaaral image man image je ko faté mukk ah parce que comme ni koy waxé chaque jour rek une image est plus éloquente que que euh, man sama téléphone bi des fois day Vous rek taxaw ko une image est plus éloquente aucune bibliothèque parfois car ma def mars 8 mars 2021 Sénégal su ko defé rek di ngeen gis image 8 mars 2021 Sénégal Ba mi ngi ni da ngeen gis boy ak sen drapeau xolal fi rek dafa xawa a gini, ma dem ci kër gi ni comme ça mu gën a bu sama. xool leen booy le 8 xool leen foo dem gis nga fii France 24 la gis nga image oh non bugguma koon sax wane mu ñëw mu ñëw xool leen xool leen drapeau gis ngeen gis ngeen booy révolution bi ni mu amee woon le mars xool leen ah, fii France 24 la fii Africa News ah? fii Euronews gis nga Euronews xool leen beneen Al Jazeera xool leen fii Al Jazeera Al Jazeera xaaral ma tegal leen bii ngeen xool lii la ñu soxla actuellement xool leen xool leen gis ngeen Al Jazeera gars yi laaj bi nañ ko def cent vingt minutes gis nga gis nga gis nga ni Al Jazeera moo wane boobu Al Jazeera xaaral ma woon leen euh, France 24 lii Africa News gis nga gis nga drapeau yi voilà lii laa bëgg a gis gis nga tribunal gis nga patriotisme bi ah drapeau yi surtout man moom a gën a kii xool leen xool leen drapeau yi lii mooy patriotisme booy boo leen woowee dinañ génn Ousmane Sonko jaral na leen ko waa lii yëpp dafa ndara ñun li ñu liggéey yii yëpp dafa ndara ñun ñun ah gis nga yaa ngi nii am ay blessé waa ñi si dee nag ñi si dee dañ leen fàtte quand même gaay gaay gaay loolu day yomb xool leen reetaan kontaan waa léegi loolu yëpp dafa ndara nax saay jigéen ñi génn ñëpp génn te li ma lay wax ni bu amee ñëpp ay génnaat jigéen ñi tout le monde va sortir gis nga étranger yi dañ commencé tiit ah voilà voilà gars je pense que je pense que comprendre fi may waxee comprendre ngeen fi may waxee stratégie bii xaar ma lire fi quelques commentaires

wóorul nga ne ni ñëpp ñëw place de l'Obélisque xam lu tax wóorul parce que police dañ ñu fay xaar gendarmerie ñu ngi fay xaar te bala route nationale dañu koy tëj tali HLM bi dañ koy tëj kenn du mën a egsi il faut que ñu bett il faut que ñu wax ku nekk toogal seen kër wala même bu dee da ngaa woote mobilisation waxal ne na na commencé ci koñ ku nekk gerel sa koñ parce que sa koñ nga gën a xam. xam nga fooy làqatoo xam nga heure boo war a génn te affaire bi dañ ne 15 heures ba vingt 22 heures mais dalee leer na am na ñoo xam ne quinze heures la ñuy commencé am ñoo xam ne 17 heures la ñuy commencé am ñoo xam ne 20 heures parce que boo nee 15 heures booy commencé yéex waa Medina mën nañu taal 15 heures booy bu ñu gisee ci internet bi Medina takk na booy HLM taal raay ba xam nga euh, waa Kër Massar rond-point Kër Massar côté yooyu ñu taal. ñëpp taalandoo ñëpp taalandoo jigéen yi dañuy génn paa dañuy génn maire yi dañuy génn parce que xam nga lan moo tax nit ñi ragal génn ku leen jàpp nit yi ku leen jàpp la ñuy bañ waaye buñ fépp tàkkandoo police mënul jàpp ñëpp police day dem ba déborder te policiers yi bu boobaa dañ leen di ñuus billahi dañuy daw comme comme comme unité 26 wanoon naa leen unité 26 keroog wanoon naa leen unité 26 nu ñu dàqee policiers yi ñuy daw biram ah, saway saawaay man daal loolu mooy sama stratégie kii nag nee na Macky 2035 waaw waaw bu ñu sàgganee bu ñu sàgganee waxuma la 2035 Macky 2035 lay doon Amadou sàll euh, nekk fi 2050 noonu lay demee de Macky boobu dugg di wax Macky 2035 barke Rasulaay Mor Diop wax nga dëgg bu ñu toogee yaafuus ah kii nee na xaaral waaye léegi gars yi si ci des bàyyil ma liir euh, kii nee na police day rey léegi ku encoagulé wu police mënul fi rey kenn parce que CPI mi ngi fi CPI mi ngi fi kii mi ngi fi Juan Branco mi ngi fi te ay avocat Juan Branco ñu ngi waaj a ñëw te semaine bii dafa décisive semaine bii ak semaine bii di ñëw dafa décisive parce que Ousmane Sonko bu ñu bu ñu tàmmee bu ñu tàmmee mu toog semaine mu toog ñaari semaine kaso kon xam leen ne dina fa toog ñetti semaine xam leen ne dina fa toog ñeenti semaine te lii dafa ruslu gars yi da xalaat Sonko da leen xalaat Sonko ah déggal euh, neferti di neferti bu leen bu leen découragé booyi bu leen découragé booyi da war a comprendre benn affaire ku xeex dee ku xeexul dee nefertiti bula bala balu police reyul xam nga lan moo rey kaso rëbës bu la kaso rëbës reyul xam nga lu lay xiif parce que Macky Sall alalul réew mi yëpp mi ngi koy jël def ko gànnaay alalu réew mi yëpp mi ngi koy jël ne la koy xeex ak Niger Sénégal dootu leen lekk dootu leen naan te ñun immigré yi dinañ leen commencé jéppi bu ñu doon yónnee quatre cent mille ñu commencé yónnee deux cent mille Nefertiti boo deewul ba bu la bal reyul xiif rey la wala rëbës rey la gis ngeen ne dëkk bi amatul benn loi ku leen neex jàpp ku far affaire lu la neex nga am épp puis yéen bëgg ngeen toog yéen da leen xalaat Sonko Sonko bu toogee. ci prison bi lan lay xalat instant yi est-ce que du douter ah de len xalat président Sonko ah gars nga tok wara gis sa jabar gisoo ko dafa metti man mi xamna ci dara mais man kenn tëjuma sax au moins man tok na deux ma ngi ni tok ay mois dix mois ngi ni gisuma sama jabar mais tam na ko te man ma choisir liguey mais Sonko une semaine gisul ana jamanka lekul beñi dugub entraîné wul. mais loolu sax tiitalu ko parce que Sonko gëm na yàlla mi ngi mi ngi alxuraan mais Sonko li koy gën a mooy xale yi nga xam ne 2014 ba léegi yaakaaroon naa ne sama message jox naa la ko est-ce que di ngeen ko seetaat Macky Sall bu ma jàppee est-ce que di ngeen ko seetaat ngeen ne ko déedéet duñ ko seetaat boo ko laalee boo ko laalee dinaa la dóor mais lii lii bu dul laal lan mooy laal yéen ko wayan ah? boo ko laalee Bokola lalé dina la dóor yéen ko way te gëm ngeen ko man xamna naa ne gëm ngeen ko ndax xamna ne xale yi fu mu nekk ni seen xol nakari na mais xale yi dañu amul ku leen jité ku leen jox stratégie ku leen jox gànnaay gànnaay nak jox na leen ko cocktail molotov yomb na bitel diwlin keuy taal bitel diwlin morso almet tal bitel xeer morso tak tal sani policier bitel dëwlin ah euh, matt ngeen baare tali bi taal soleil boo leen xasee baare tali bi soxlawul essence essence dafa cher essence dafa mystique bi wax naa ci sànq essence dafa chair essence dafa naqare euh, jënd foo koy denc mais dem jënd euh, biteelu diwlin ah ut say biteelu kii denc seen kër xam xam nga cocktail molotov bobu lutax mu bax doo ko defaree sa kër parce que Antoine diom mi ngi wër ci kër yi fu mu gis cocktail molotov japp wa kër gi yob yóbbu waaye diwlin bu duggé sa kër fekk fa diwlin fekk fa ay bité dula japp bo boo leen demee ba génn ci mbéd mi yomb na défar sotti tuuti diwlin duggal morso toyel morso ak diwlin duggal ci bir diwlin fat mu xawa lang tuti nga taal bo taalee sanni policier wala nga taal romb euh, Seneweb katta nday Seneweb nga tal romb TFM dakanday nday TFM RTS dakanday nday parce que tamit comme ñom dañu commencer di kontaan ci li ñu jàpp Sonko amul man Bouba dur la ci don rus mais fi mu nekk comme yene a fi invité Pa Moustapha jaxate mu ñuy ñaawal pa bobu la ñuy njëkk dëgg ndayam il faut que ñu commencer leen terroriser waaw il faut que ñu comme équipe de nuit mbuucaa mbuuci amuñu garage ay baadoole lañu garage sax amuñu ko amuñu garage mbuucaa mbuuci ngeen dem comme Pa comme Ba Jaxate Omar Faye Tëngéej la dëkk booy jàllo nedd ko bandum xam naa ne sax amul oto wala bu amee oto amul garage ñooñu ngeen daqaar seen ndey ba pare waaw Sonko bu amul jàmm kenn warul am jàmm ci dëkk bi parce que kii nee na ma euh,

il faut que ñu ñuus leen ba ñu tiit bàyyi wax teg pression Macky Sall ne ko kii kii reyoo goo ko sax dëkk bi takk kon bu ko jéem a rey mais boo leen toogee yàq yasaara yàq ne ne yàq xamu nu ko Youssou Ndour waxee yàq ci ñeesar Macky day rey Sonko mais boo leen tàngalee réew mi Macky du rey Sonko du ko terroriser du ko def dara génn leen génn leen ngeen continuer seen action yi yéen nag li ma wax nii yéen ñi may déglu waa Sénégal ah, boudé lima wax man xamna né ne né sax duñ ko def parce que ils sont incompétents té némé wuñ jël seen responsabilité mais man ma ngi lancer appel bi ma ngi lancé appel ñom Ousmane Diagne ah ñom kay foofu lima wax ni nañ ko djema affaire bi du monsieur Cheikh mo njëkk wax wala lima wax mais man man man dal képp kuy joxé stratégie na joxé stratégie synchroniser généraliser ne donne ben heure bo xamné ne ñëpp a d'accord na doon fépp nag mais opération fees fépp déedéet opération tal fépp lañ soxla opération taal fépp te boo waxee opération fees fépp da ngay joxe heure nga Demba Touré da ngay joxe heure waxal 3 heures li tax ma tam ci 3 heures 8 heures ci goudi ba 2 heures nañu bàyyi suñu jigéen ñi dem marché togal parce que suñu guerrier il faut ñu lek képp ku ku 3 heures bu jotté ambulant man bu doon jaay. tëjal sa ambulant te xam ne gars yi nga ñëw sa kër kon saa bu boobaa bul wax ne dañ laa dañ laa sàcc loolu tax 3 heures baax day tax ambulant maan yi liggéey ba wàcc ñëw dugg ci xeex bi parce que ñoom tamit Sonko la ñu faral mais nga jékki-jékki rek nit jóg dem taal ambulant maan boo xam ne ndeysaan benn 500000 la am am table nga ñëw yàqal ko mais kooku bu faral Sonko après day mer ba doo tuutal xeex waaw kon dafa nekk benn heure boo xam ne dañ ko war a wax gars yi 9 minutes moo ci des ah ngoon ma ma defaat recherche ngoon ma ñëwaat dañu war a def benn heure boo xam Sénégal man daal li may incité une action durable soutenue chaque jour de 15 h à 22 h ñu jël 3 jours ay renouvelable comme temps comme temps grève rek 3 jours renouvelable Ousmane Diagne non pas Ousmane Diagne Ngagne Demba Touré bu génnee na wax loolu gars quartier yep yep yep Ousmane Sonko nena na quartier yep Ousmane Sonko jox na len digal Sénégal kep kuy patriote kep ku ma bëgg ñu ngi lay ñaan nga genn bu sax tuddu Ousmane Sonko bu la neex nga tuddu Sonko bu la neex nga tuddu mais en tout cas ñun li tax ñukay def pour Macky Sall baye Sonko ñu ngi lay ñaan kep kuy patriote kep kuy sénégalais kep ku ku sonn ci jalgati Macky Sall di jalgati di tas ay parti di tëj ay nit. di nangu ay maire seen mandaa képp ku xale yi ñuy rey attentat yi accident yu bëri yi képp ku sonn ci dëkk bi ñu ngi lay ñaan nga génn trois heures ba vingt deux heures barkeelu leen ci révolution bi loo leen mën a yàq yàq leen ko loo leen mën a yàq yàq leen ko ngir ñu wan ne Macky Sall ñun dañuy préféré Sénégal yàqu ba faw sëriñ yi mënuñu dara kenn mënuñu dara nañu yàq Sénégal parce que Ousmane Sonko boo ko reyee mooy yàq ngeen suñu àdduna waaw Ousmane Sonko nan lay deewee ñun ñuy dund waaw waaw live bi man nekkatuma fi di def ay live ay ay dàmbooj nekk fi di di di leem-leemi di ñu wax ay Niger ak ay élection man faalewu man day élection man Ousmane Sonko laa bëgg ñu génne ko parce que bu ñu ko génnee suñu problème réglé moom moo mën a réglé suñu problème moo mën a réglé problème Afrique bu ñu ko génnewul na suñu problème du réglé waaw Ousmane Sonko mooy suñu yaakaar nit ki nak do am sa général ñu japp sa général nga plan B Guy plan B ah Fall xaram Ousmane Sonko dina liggéey lu muy liggéey ñu parti passif, du parti yakalé parti du parti ko Ahmed Aïdara déjà mérité wul sax maire dans un pays normal Ahmed Aïdara warul maire warul député du gët ba pare jikko bu bon la yor traître la parce que yow nan la la Ousmane Sonko falee Macky Sall di ko caxa-caxatee nga fàtte ko nga bàyyi ba ñu tëj Ousmane Sonko da nga génn di jouer les euh, les les les héros moo dal euh, ñoom ñëpp moo leen dal ñoom ñëpp moo dal euh, Gathie Fall moo dal Aïda Mbodj moo dal Khalifa Sall non Khalifa Sall moom dafa dafa dafa daf ñoo trahir bu yàgg Barthélémy Dias ñoom ñëpp a yem ils sont sëñ Moustapha si dama ka yërëm pas yërëm dama ka rouss waye momit dafa abandonné Sonko sëñ Moustapha Sy parce que déggatuñ ko mu wax pip capitaine déggatuñ ko mu wax pip mais c'est inquiétant mais affaire bi dafa dafa jéggi dayo ana capitaine mo doon wax dañuy réew mi dañ il faut que ñu sàngo ko direct xawma mais c'est inquiétant donc comprendre waaw mais de toute façon gars yi live bi loolu la woon sama exposé 5 minutes de scara lire quelques commentaires après après euh, on inshallah nous continuer Maintenant, jours euh, vacances inshallah ma ngi ñaan may temps de que ngi am am temps génn def mën ngir ñu wan ko def xërëmam mu def puisque la le bruit court de plus en plus proche et hospitalisé merci ñun lii la ñu soxla dégg ngeen li ñu saawaay wax drof ne nañu ah gars yi ñu ngi naan euh, Sonko dañ ko dañ ko dañ ko yóbbu hôpital xaaral ma lire j'entends encore un autre domaram qui va entrer ici que dire que Macky Sall di kat euh, comprendre ma je ne sais pas ce qui s'est passé mais sincèrement la situation bizarre xërëm rek la mën a doon man gëm moon xërëm de waaye léegi maa ngi koy commencé gëm mais xërëm bi dinañ ko dindi dinañ ko dindi kii mu ngi saaga Macky Sall Tafsila wax nga dëgg fak Macky Macky moom ku jar a saaga la Marème Faye ku jara a saaga la Moustapha Diakhaté ku jar a saaga la Barthélemy ay dara ay Aïda Mbodj gàccee Fall ñoom ñëpp ñoom ñëpp waa Pastef nag bu ñu moytuwul ñoom it dinañ bokk ci saaga yi ndax ñoom ñoo war a xeex combat bi dañoo ragal kaso waaw ñoom ñëpp dañ def benn say dañ def benn say ñu jàpp leen ñu génneel ji leen so c'est logique c'est logique Sonko ñu ñu kii ko ñu hospitalisé ko c'est parce que ku toog huit jours lekkuloo kii nee na du benn xërëm ah mais ñun citoyen dañoo waaru man yàlla xam na ne gëmuma sëriñ waaye citoyen man waaru naa Sonko na leen koy téyee cinquante cinq jours kenn bougé wul ba ñu jàpp ko lan moo évaluer situation bi waa dañoo nax wax nga dëgg ndànk-ndànk di ko jàpp di toj vitram di ñu nelawal cinquante jours jàpp bàyyi jàpp yóbbu këram ba ñu tàmm ko waaye nag dafa war a jeex lan moo tax ñu jàpp ko une semaine dëkk bi nekk si jàmm moo ma jaaxal waaw gars yi continué leen 4 minutes pour man xërëm la de waa xërëm nag xërëm moom nan lañu ñuy ba dindi ko non du erreur eh affaire Barth du erreur parce que Barth ñun ñun xeex nañoo ànd nañoo ñoom Barth ba am ban am am 24 député kon kay erreur amu fa ànd nañoo ñoom Barth ñun ñoo use booy xool ñun ñoo leen use ah waa PDS yooyu ñun ñoo leen use. ñun ñoo ànd ak ñoom ba ko nekk chef de l'opposition léegi kay gars yi nee nañ du mystique non du mystique non bu ñu sax gëm affaire mystique bu ñu gëm affaire mystique xam nga lan la trahison yi ñoo bëri sëriñ yi dañoo lâché Bart lâché ñu Aïda Mbodj lâché ñu Gàcce Fall lâché ñu dafa bëri ay traite te même waa Pastef dafa bëri ay ragal wax yëpp lan la waa Pastef ils veulent tout faire solo selon la loi des fois la yoon da nga koy jalgati yoon da koy jalgati mais waa Pastef dañoo idéaliste trop

toppandoo bu ñëpp génnee xale yi génn mais kenn du génn yow kese di sarax sa bopp moo tax nag ma ne stratégie bi ma joxe boo waxee ne quartier yëpp génnandoo taal mais mais boobaa day réussir non on a vaincu l'ennemi ba fi mu nekk nii ñu ñoo yor doole li ci des mooy li ci des mooy ah ah Ngagne mu joxe stratégie te stratégie bi muy joxe na doon stratégie bu leer bu dee man li ma proposé li ma proposé. moom bëgg ko def li mu bëgg a def na doon loo xam ne dañ koy def di ko def di continuer buñ ko defee tey baaxul suba ñu ñëwaat yokk ci di yokk di yokk ba li may wax mu mujj de façon li may wax mooy mujj am stratégie stratégie buñ ngañ dem bu ture wax ak lu mu mënti doon bu commencé sama stratégie mooy mujj xam nga la mooy sama stratégie nan lay mujjee Sénégal yëpp ay tàkk bu leen fàtte ne 2021 Sénégal yëpp ay tàkk doon waaw il ne faut pas sacrifier les jeunes aussi sacrifier une ne jeune bu Macky fi 2021 sacrifice gars réfléchir ah citizen citizen le xam nga lan moy sacrifier jeune yow ki nga ki lay dundal ñu ko kay sacrifier nañ la Sonko bu déwé yi ban am espoir ñu sax liggéey jël voilà gars 120 minutes 30 secondes on peut non on peut compter sur l'armée si on peut compter sur l'armée mais l'armée bu ñu gisee ne population bi ay làppato lañ dañoo toog fi ñu toog armée bi def dara waaye Néfertiti bu dëkk bi tàkkee armée bi dañuy commencé dañuy commencé wax waaw waaw nu mu demee noonu dañuy commencé wax seen biir mais tant que Macky mi ngi am doole kenn du ñeme song ben, ben, benn officier du ñeme song du song armée tant que Macky mi ngi am doole amul benn officier wala ben général bu bu bu bu euh, mais bu ñu gisee Macky mi ngi commencé paniqué mi commencé takk bagage am Marème fay daw ministre yi daw ñu ñu naan eh Mamour Diallo jàpp nañ ko otage wala jàpp nañu euh, euh, kii otage wala rey nañu kii rey nañu kële bu boobaa armée day jël affaire yi non noonu lay mujj voilà gars yi def nañ cent vingt minutes bàyyi leen ma yemale ko fii mais koj leen ma ngoon d'ici d'ici deux heures d'ici trois heures de côté yooyu russe man xeebu ma dara man li ñu am baax d'ici trois heures de temps xeeb ba ñëwaat leen daf may permettre ma dem doxantu ji lekk ba nice temps yi am na benn restaurant chinois bu ma gis temps yi hamburger yi moo ma sonaloon ay <laughs> eh, ndefet ni mujj naa entraîné démb sax macha allah démb entraîné naa entraîné yu neex ma dem ci benn restaurant chinois lekk bu baax naan sama café xoolaat information yi ngoon ma ñëwaat ak live mu gën a show Ousmane Sonko billahi wallahi taalaahi na xam ne am na ay soldats yoo xam ne dinañ ko xeexal duñ ko rusloo bu soobee yàlla gars yi à tout à l'heure merci laaj leen partagé leen nag laaj leen partagé leen te da ngeen seet si ma seeti leen ma sama sama TikTok aussi dee leen fa dem ngeen xoolaat résumé yi boo leen bëggee seetaan ah, ah, parti yu gën a neex am naa benn gars bu ma bu ma fa nekkal ni fa bindal ma TikTok bi gars yi lire ko Mystère New York sur TikTok mais New York bi dafay am dafay am trait d'union kii nee na ma yaa ngi noos maa ngi sant yàlla mais noosuma yàlla xam ne noosuma billaahi non suma temps yi avant ñu jàpp Sonko vacances yu neex laa daan def laa laa nekkoon mujj bi benn live rek laa doon def bëccëg bi dama doon jóg rek dox une heure de temps mais léegi talatuma ko mais maa ngi sant yàlla maa ngi noos moom mais noos bi mënul mënul mënu ma noos su ma xalaatee ne pros mën dañ koy waaj a rey noos bi mënu neex ay eh bindal ma Mister New York sur TikTok loolu mooy sama mooy sama TikTok Mister Mister New York avec trait d'union sur TikTok boo leen demee di ngeen gis résumé yu baax ngeen abonné foofu ngeen gën a partagé waaw kay moo nekk noonu dem leen ngeen abonné ci waaju waajooju il est fort mu ngi may defar résumé yu baax a baax a baax abonné leen am na cinquante mille abonné waaw abonné leen euh, euh, euh, à tout à l'heure waaw Aliou Badara jaajëf abonné leen foofu ngoon ñu ñëw defaat leen beneen live merci beaucoup Nefert merci tout le monde merci Aliou Badara ba ci kanam vive pros bu soobe yàlla dinañ ko libéré tey wala sema prochaine